salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi nuyu nañ leen gërëm leen rafet bu baax a baax seen ànd ak euh, ñun alors euh, du nuyu di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñi ngi teewlu jamono ji seen biir kër du nuyu di euh, ziar également kilifa diine ak kilifa aada di ñaanal ñëpp ñoo xam ne dañ nekk ci jafe-jafe mbaa ci tawat yàlla suñu borom daal di saafarawaat lépp alors nu ñu koy defee euh, lundi ba vendredi seen émission studio ouvert euh, daal dinay dikkaat wax lépp loo xam ne dafa ñeel wàllum tolluwaay réew mi moo xam ci wàllum actualité politique économique euh, ba ci itam yeneen yoo xam ne dafay laal askan bi ñu daal di koy dikk teg ko ci table bi daal di koy waxtaanee waaye it du ñu fàtte benn yoon daal di leen ni dikkee li nga xam ne moom la yëglekaay yi daal di xëyee tey mu di une des quotidiens daal di koy faram fàccee ñu na ci ànd ak ki nga xam ne moo di Dame Ndiaye ci kanam tuuti dana leen nuyu waaye di euh, gërëm également ba euh, sax di nuyu waa diaspora ñi nga xam ne à chaque fois dañuy bàyyi xel li nga xam ne moo di émission euh, studio ouvert yéen a ñuy teewlu ci fi nga xam ne moo di suñu télévision waaye 90 point 7 mooy rajo bi bu fekkee yéen ñi ñuy teewlu ziar nañ leen gërëm leen bu baax a baax waaye it nuyu ki nga xam ne mooy borom mboy naan boroom jolof Dame Ndiaye ma ziar la bu baax a baax. également Traoré ñu ngi lay nuyu yow itam di la ziar bu baax di nuyu mbokki déglu kër yi ak seetaan kër yëpp yi nekk ci biiram ak bitim réew ni nga ko waxee nuyu mboolem kilifa dina kilifaat yëpp nuyu suñu président directeur général euh, bu groupe Africa 7 Aliou Ndiaye Serigne Saliou Faye ak mboolem ñi ñu ànd ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu am euh, mbégte feggoot ak yow ci waxtu wi de. mi ngoog euh, nuyu nañ la bu baax a baax mbaa sax fay la nuyoo Dame Ndiaye Mm, waaw warta bett kenn nag wax dëgg fa yàlla ndax nee na fii ak xarmee xartum bi matul euh, buñ ko gisee xam nañ xam ne gis nañ ko buñ ko gisul nañ xam ne gisuñ ko ah, euh, ndax dafa yor loo xam ne li daal xam naa ne boo mooy te euh, lam ko sas dafa metti lool te fu ndoom nag ñu ngi koy tagg naa madame ba dafa baax dafa baax <laughs> waaye sas sa borom kër ba nga xam ne bii wax dëgg yàlla amul fa mën a toog <laughs> ah am na mu yow maay sax waaye def na ko mii du ñëw il faut nga indi meneen moo xam ne mii daal moo ko ëpp Euh, kon moo tax daal fi mu toll nii daal nelawatul yéenaratul nag. yàlla na yàlla yombal mais dafa de. waaw man xam nga yàlla dafa def fi mu toll nii Mariam man damaa nekk sàmm. Ah? Euh, xam nga euh, jamono ji dafa yàqu ba nga xam ne bii léegi ngay taxaw nawet jot baykat bi la jiw. te mhm. loolu daawul am. Mhm. léegi ngay gis tabaski jot daanaka fi ñu toll nii kenn ku nekk naa naxar yi bëri naxar yi kii te sa maam ñoom. Mhm. dañ daa yar. xar. dëgg la nag euh, euh, lu mel ni réew yu taax yi moom yombut a yar xar ndax mhm. léeg-léeg nga dëkk foo xam ne fi doo am espace sax boo mën a yaram xar wala boo ko yaree tamit sa xel du daal ndax yaakaar nga ay njóobeen mën nañ faa jaar ba jël ko ah yooyu day am moo tax euh, mais daawut bëri quand mhm. ah, dañ ko doon waajal xam nga loo xam ne li at ba at la mhm. te leer na la lii kat da ko war a waajal ndax mi ngi ñëw mag ñi dañ ko doon waajal bu baax yeew seen xar mu ndaw moo bu ñu jëlee benn xarit eh, di di di ko rey pour tabaski. Mhm. jël nañ meneen mbuurtu mu ndaw yeew ko fan ko yeewoon. Mhm. ne nag maa ngi ko fës si naa yéenam ne jëmale li nga xam ne mooy at mi dem si. Ah, kon am na loo xam ne lii mhm. eh, warta warta mën a bett jullit bi. ndax xam nga ne nekk na loo xam ne lii doo ko mën a tàrde kon nag di ko waajal. ndànk-ndànk boo amee sa ju boo amee sa sa sa junni boo mënee eh, avance borom xar nga avance ko na ko jàppal ci lii balaa bés bee ñëw nga kii waaye nit ñi dañuy béy ba mbiri na kët na jonn bu ko mm-hmm. defee ñii naan xar yi dama koy yokk mm-hmm. ñii naan man awma xar bu ko defee nag wax dëgg fa yàlla mu ñëwaat pompitat beeg soble beeg yére yi aju si bu ko defee mm-hmm. mbiri da lay ëpp doole moo tax di ko waajal ndànk nag xam nga àddina programmation la lépp da koy da nga koy programme waaye daal ñu ngi koy ñaanal na ko yàlla may euh, meneen xar kay amoon am xar kay meneen ah, euh, waaw yooyu itam yàlla may xar moo jox góor gi amiin <laughs> <laughs> na <laughs> naa ne jaaxle woo loolu moo tax yi ne woo leen Mariama xel mi dal na <laughs> yàlla baax na en tout cas ñi ngi ñaanal ñëpp ñoo xam ni euh, donc ñi ngi am jafe-jafe jëmale ci wàccaayu tabaski bi euh, bi nga xam ne ci la ñu euh, nar a jëm incha allahu rabi yàlla na leen yàlla may kon ab xar boo xam ne nañ ko yóbbul seen kër waaye te ku wax xar daal di wax buum donc yàlla yàlla woyofal lépp incha allahu rabi donc ñu yeggaleen aslëf ci li nga xam ne mooy xibaar yi tey dem ba ca diwaan bu géejuwaay foofee nag kuréel gi nga xam ne moo ëmb imaam yi ñoom nag dañoo daal di indiwaat coowal peine de mort ci noonu itam euh, la ñu bëgg moo di lu toll ci juróomi million euh, ci askan bu Sénégal ñu daal di koy xaat maanaam ab pétition euh, la ñu daal di lancé daal di nañu dem seeti ñenn ci yow xamante ni sax ay kilifa diine lañ ñoom itam daal di nañ ci ànd ci noonu ñi ki ay bés bi ñu daal di génn ñi ngi doon def jannoo ak waaye taskatu xabaar yi ngeen nag daal di wax li nga xam ni moo di seen bëgg-bëgg ci coowal peine de mort bile ñu teewlu kenn ci ñoom mu di imam Balla Thiaw mooy seen njiit ci micro bu Ibrahima Khalil Jemmi ci jamono yi xam ngeen ne agression bi ak faat gen ñuy faat ëpp na ñun suñu yëngutu yaatu na ñu ngi yëngu ci kaso yi depuis ay at waaye ñu ne lii nañ ko jël ndax ñun xam nañ bu baax li na ci kaso yi kon yaakaar nañ solution ci solution yi mooy fexe ba ko rey ñu rey la muy peine de mort peine de mort nag buñ ko waxee dana am ñu tiit waaye dana am ñoo xam ne dañ naan siiw mu ñëw ndax lu fi amoon la lu fi amoon la kon du lu bees wootewuñu lu bees combat boobu biñ jógee war koo dox yannu liggéey boobu liggéey bi nag liggéey population bi yëpp la mais loolu foofu am ñu ko yenn waaye liggéey population bi yëpp ndax population yi boo doon laaj tey fi ñu toll ñu xam nga ne tiit nga yàq nga ragal tey boo yaakaaree ne mucc nga sa njaboot muccul fi réew mi toll li ñuy gis di ko dégg kenn ku ne ci ñun tiital léeg-léeg nit dina xëy guddee àll loolu tiit nan lay def ba ñibbi léeg léegi nga am soxla sa soxla boobu heure bu jotee xalaatoo génn ak yu baree bare li ñuy gis moom du lu ñuy wax ci société bi ni ñu koy dund ki dem gis ngeen ndaw suñ feroon gis ngeen ndaw suñ fekkoon ci oto ak yeneen yéen du jeex bis bu ne daanaka kaa yi kenn mënu koo lim kon loolu lu ñuy dund la xam nañ ko. loolu nag bi mu amee collectif des imams jóg nag pour xeex boobu mu bay ci wewu tànkam def ci lu mu ci mën a def bu àggee ci moom alhamdulilah bu àggul ci moom ëllëg nga ñëw yàlla mën naa def ñu àggale ko waaye incha allah taala jóg nañ xeex boobu nag ay weer ci gannaaw ñu ngi ci. liggéey bu mel ni comme bëgg nañ koo def te am nañ ay kilifa nañ dem ci xalifa yi muy kilifa yi loolu bi ñu ci waxtaanee ñu jël oto def tournée tournée bi ñu ngi njëkk a dem Kaolack bi ñu demee ci xalif général mu dalal ñu macha allah déglu ñu kontaan arrêté ci mbir bi waaye ñu jógee fa dem Touba ba ñu jógee Touba fekk xalif général mi ngi Dakar Guédiawaye ñu continuer dem Kokki bi ñu demee Kokki macha allah ñu dalal ñu wax leen suñuy tànk ñoom it ñu adhéré ci mbir mi jógee Kokki dem Touba ani dem Louga. bañ demee ci kër Thierno Bachir mu dem faju ji doom ja moo ñu dalal rakk ja moo ñu dalal ñu jóge fa dem ci famille Sall bi Cheikh Tidiane Sall moo ñu dalal keroog kontaan lool ndeysaan ni lii man lii adhéré naa ci ñu ngi ci te fu ngeen ci toll nañu yëg ñu jóge fa fanaan Louga xëy dem Tiwaawan Tiwaawan moom bañ demee ndeysaan njool fuuta nag mbir bi da koo yenn ñetti waxtu tëju na kook ñun kontaan yëg-yëg bi mu am musu ko am ndax xalaat bi ñu am ak combat bu mel nii. ñu ngi ci benn étape ndax fi ñu toll nii. étape boobu moo ne suñu kanam ndax ñi ngi def ay pétition yoo xam ni liggéey nañ ci pétition yu mag a mag a mag pétition yi wax dëgg am na ci yu bare bare bare ñëw na bëgg nañ ay signature yu bari ndax ñu ngi seenu ba 5 millions ñu ngi ci liggéey boobu voilà gis ngeen ko mu nekkoon imam Bal Thiaw di euh, njiital euh, collectif imam bi nga xam ni euh, ñoo fare ca Pikine Guédiawaye voilà doon adduwaat ci li nga xam ne moo ñeel kon retour peine de mort maanaam ñu indiwaat ko donc Dame Ndiaye gis nga leen ñoom li ñuy sàkk bokk na ci ñu indiwaat peine de daanaka jamono ji dañoo daal di lancer ab pétition lu ñu bëgg neen lu toll ci juróomi million ci Sénégal ñu daal di koy xaatim ngir rek ñu daal di euh, indiwaat li nga xam ne moo di peine de mort mais est-ce que nekkul un petit peu benn répétition ci jamono joo xam ne gis nañu fan yee euh, ñenn ci ay député pencum ndaw réew mi ba ci itam ñeneen ci ay collectif sàkk woon nañ ñu demee noonu waaye ba tey dañu ko gàntal ndax jàpp nañu lu jëm ci charte réew mi euh, da cee taxaw taxawaay bu am solo. Euh, Mariama ni nga ko fàttalik noonu la ndax euh, xam nga peine de mort mosoon na am Sénégal. Mhm. Euh, daanaka dakkal nañ ko fi ñaari yoon. bi ci mujj mooy deux mille deux mille quatre. Mhm. ci jamonoy président Abdoulaye Wade. Mhm. kon nag ko faar ñu faar la daana fi am. ni nga ko fàttaliku également du xeex bu bees boo xam ne bi xëy na dañuy wax ne guléet. ay nit taxaw ne dañoo bëgg euh, daal ku faat ñu faat la. Mm-hmm. di di peine de am na ñoo xam ne sumboon nañ ko fi euh, fan la ñu mujj. Euh, ñii mi nag ci seen ci seen rôle la ñu nekk mm-hmm. seen warugar dañ nekk ndax en tant que kilifa diine wala en tant que doomu aadama rek mm-hmm. boo gisee tolluwaayu réew mi tey ni mu mel Euh, ci ay faat yu bëree bëri yoo xam ne day am. te mhm. léeg doo xam sax daanaka noo ko loo loo noo koy qualifié. Mhm. Euh, day dem ba si yàgg nag da naan taal bu téye tàkk faw nga xool euh, nga xambee ko boor bu ne. Mhm. loolu nag moo tax ñoom tey bu fekkee ne en tant que ay kilifa diine dem nañu également ci diine ci kër kilifa diine yi wax leen ko. ba noppi tamit sàkk loola ah loola lu lu lu jar bay xel la. waaye rek war nañuy dellu gannaaw tamit di ñu wax ne lan moo taxoon Penda moo ñu jëlee ko fi ndax biñ ko fi defee tamit ñaari yoon ñaari nit lañ ci mas a àtte mm-hmm. ndax biñ ko fi defee ti am na lum juróon mm-hmm. est-ce que am na lum wàññi woon waaye lu lépp weesoo dafa am loo xam ne lii suñu ngëm-ngëm la mm-hmm. en tant que jullit euh, yàlla du wax ni lii laa àttee samay mbir yow jullit bi nga xam ne yàlla moo la sàkk nga ne ko ah yàlla kat yow kat li nga wax ni kat lee la lee lee lañ bëgg a doxal kon yàlla moom li wax ci ku rey. Mm-hmm. te leer nañ ñun ñëpp xam nañ ko maintenant nag ñun ak suñuy suñuy su suñu suñu nekkin ñun ak suñuy tex mm-hmm. ñun ak suñuy ngëm-ngëm ci ne xëy na état islamique la ñun euh, bu amuñu état islamique bien sûr dunduñ ko. Mm-hmm. laïcité la ñuy dund ak leneen ak leneen ak leneen. bu boobaa xëy na ñun ñooy yaakaar ne kat ne ah réew kat boo leen xoolee peine de mort Mariama am na si yeneen réew waaye ndax tax na. faatu gi wàññeeku fa. Mm-hmm. wala ndax tax na faat gu jóg fa waaye ak lu ci mën doon lu ne euh, li yàlla wax moom moom rek la ñu loolu loolu rek lañ mën a wax. Mm-hmm. maintenant nag ak lu ci waay man di wax lu ne wax dëgg fa yàlla. même fekkee ne léeg ñu ne ah Sénégal kat mënuñ ko xëy na euh, ni ko yàlla waxee bu ñu ko bëggee doxalee noona xam nga loolu ëpp na. cib mm-hmm. jullit euh, yàlla moom lu mu wax rek moo gën ci ñun. lu mu ñu sant rek ñoo gën si ñun parce que yàlla moo ñu gën a bëgg suñu bopp. moom moo ñu moo ñu fi indi. Mhm. maintenant nag euh, lu ne mën nañ ko wax euh, ci li nga xam ne li moom mooy euh, doxalin wi waaye li am solo daal mooy jot na ñun ñëpp. Mhm. ñu def ndëpp. Mhm. xam ne faat yii naka la ñuy def ba mu wàññeeku. parce que am nga ñu ne non non parce que erreur judiciaire faat nit ki ñu ñëw ah ñu ne kii kat da faat rek. nañ ko àttee nii te xamul yan condition kii waaye daal ak lu ci mën di doon lu ne daal 2004 ndax am na lu mu juróon wala ñaar nit la faat nañu xoolaat daal wax dëgg fa yàlla ndax buñ ko indiwaatoon du am lu mu wàññi bu baax a baax a baax wala ñu doxul beneen méthode boo xam ne bi dana wàññi faat gi parce que tamit vraiment ni ñu faatee ñun ñaaw na lool taxaw seetlu bi am na ci solo bu baax a baax euh, alors ñu dem ba ca diwaan bu Ziguinchor foofee aussi wax ci euh, ñeent fukk ak euh, ñaar yi fare ci agent bu commité technique bu établissement bu hôpital régional bu Ziguinchor ñoom nag niki ay bés bi ñu daal di génn ñi ngi doon artu daal di ñaawlu li nga xam ne moo jëm seen doxalinu direct directeur euh, général euh, nee nañ nag euh, la mu leen amal bokk na ci ay payoor loo xam ne dafa laale seen ay salaire te mu duggoon ci li nga xam ne moo ñeel prime de motivation bu Covid 19 ñoom nag fas yéene nañu wàcc ci tali bi laata tabaskee jot bu fekkee ni li ñuy daal di sàkku dara antuwu ci ñu teewlu seen i ki nga xam ne moo di Babacar Ndong moo yor seen i kàddu ci micro bu Moussa Ndaw. qui se trouve au niveau de l'hôpital régional. Nous courons depuis 2019 derrière nos fonds de motivation Covid-19. L'État nous doit deux mois d'arriérés de motivation Covid-19 pour les uns et sept mois d'arriérés de salaire pour les autres. Depuis ce temps, nous courons derrière l'État. Jusque-là, nous ne sommes nourris que de promesses non tenues. Maintenant, l'État se doit d'être reconnaissant envers les gens qui ont travaillé durement. On s'est donné corps et âme. voilà mi ngi noonu ñi ngi jégalu ci élément boobee euh, donc nekkoon euh, version euh, tubaab dinañ ci dikkaat jomul suñu yeneen plateau ci li nga xam ne moo di kalama kocc ci fàttali nag moo nekk kon ñi nga xam ne dañoo fari foofee ci hôpital régional bu Ziguinchor ñoom nag ji ñaawlu li nga xam ne moo ñeel seen doxatil doxalinu seen i directeur général bokk na ci ay ay salaire yoo xam ne ñu ngi koy daal di réclamer te laale woon nag prime de motivation yu Covid 19 daanañ ci dikkaat suñu yeneen jotaayu. taskatu xabaar ñu jeexale euh, li nga xam ne moo di xibaar yi ak championnat national bu euh, kon Vovinam euh, Viet-Vo Dao bu Sénégal daal dina mu mel ni nag daal dinañu ko ndar képp voilà foofee nga xam ne moo di waaye nekk ay bés bi ñu daal di génn ci noonee nag ñoom combattant yi nga xam dañuy def arts martiaux daal dinañu kon fekkee boobule daje waaye nag jamono ji seen njàqare lenn képp la moo jëm ci wàccaayu coupe du monde bi waaye nag ñoom ba tey eh, ki nga xam ne moo di seen eh, c eh, seen CNG ba tey nag jawriñ bi ñu dénk wàllum sport daanaka ba tey oowagu ko wax ko li nga xam ne moo jëm ci wàccaayu coupe du monde bi ñu teewlu ki nga xam ne moo di Makhane Ka seen njiit ci micro suñu ndaw Ibrahima Khalil Diémé la ñuy tëj mooy événement bi nga xam ne moo ëpp importance ci li ñu def ci année bi yëpp donc mooy championnat du Sénégal def nañu ay tournois yu bëri ci année bi championnat régional def ay open yu bëri bëri ay champion mais tey ñi gën a aay ci Sénégal ñoo fi daje tey pour wane ñi gën a xarañ ci année 2022 bi donc loolu moo ñu fi dajale tey dina compétition bi c'est très satisfaisant ah dëgg yàlla boo leen xoolee fii euh, particularité compétition bi tey mooy xale dañ ci bokk d'habitude dañ doon ber xale yi mais ak ni mu demee ren un peu yenn difficulté yi ak li ñu organiser manifestation yi lu bëri moo tax ñu ne nañ ko def fête bu mag donc boo leen xoolee xale yi ñu ngi si compétition bi jigéen ni ñu ngi si compétition bi am na combat am na technique donc bilan bi c'est très satisfaisant jafe-jafe yi souvent affaire xaalis la rek parce que organiser compétition wala sportif moom moyen moo ko yor parce que pour organiser il faut de l'argent il faut de la préparation bon amoon am nay difficulté ñu jéem ko gérer ba yàlla suturaal ñu mais mën nañ ne principal problème CNG bi tey Vémouna Mbirou question de moyen la athlète yaa ngi fii encadrement maa ngi fii dirigeant yaa ngi fi xam-xam bi sur le plan technique mi ngi parce que on est les en Afrique ça on peut le dire et on fait partie des trois quatre ñi gën a ci monde bi ci donc moyen moo fi desal à condition de performance li tax ñu ñëw stade Amadou Barry mënoon ko defoon Marius Ndiaye wala feneen dañu bëggoon gën a jege club yu nekk ci banlieue bi parce te souvent ñoom ñoo doon fekk si biir Dakar ren nag ñu ne pour championnat national dañu defal honneur jox leen organisation donc tout le comité d' waa Guédiawaye la coupe du monde bi mën nañ mooy événement bi ëpp importance si suñu saison bi weer moo des matul weer sax parce que ñu ngi war a def coupe du monde bi du au juillet bii di ñëw te ba léegi wax dëgg yàlla ministère bi yëngoogul noonu lañ ko mën a waxee du ñu wax ne dañu fàtte wala yooyu dañ naan rek jéego amagul ñu leen di disons ñaanaat ñu ñu parce que athlètes yi ñu ngi préparé wu ñu ngi ci regroupement yi ñu ngi ci mais seen xel dalagul te sportif bu xelam dalul ci ndax dina dem wala dem sax mën naa mën a jouer ci ay performance am dëgg yàlla ñu ngi ñaan ministre bi en commençant par lui a dem ci euh, aywa jaajëf mi ngi noonu mu nekkoon ki nga xam ne moo di euh, kon euh, maître Maham Ka euh, di njiital ñi nga xam ne ñoo di ñoo doon organiser kon championnat national bu Vovinam Viet Vo bu Sénégal ay kàddoom mu nekkoon ci micro suñu ndaw Ibrahima Khalil Diémé aywa dañuy daal di kon dugg ci li yëgle kay xëye tey Dame Ndiaye dañu koy doxe ak Vox Populi. jërëjëf Mariama comme ni nga ko waxee daanaka yéen kay yu bëri nag. tey jii mbirum euh, politique moo ci gën a fës rawatina nag lu jëm ci ñi ñu euh, tegoon loxo ci manifeste yi ñu daal di génn ak euh, ni ñu leen dégloo ni ki démb mu ñu leen daal di teggi loxo lañ leen daan ci ay weer yoo xam ne duñ ko tëdd ak li nga xam ne moom mooy ay ndàmpaay ci wàllu koppar yoo xam ne dañ koy daal di génne loolu tamit yéenekaay yu bëri daal dinañ ci xëy tolluwaay bi ba ci waa ànd sàmm jikko yi ñoom yi tëm yëglu bi nga xam ne ñu ngi koy daal di yëglu ngir ñu daal wax kaso bu mm. si kon euh, lu ci mel ni honorable député euh, Déthié Fall honorable député Mame Diarra euh, Fam ba ci Ahmed Aïdara ñoom ñëpp nag oppi li nga xam ne mooy kaso boobu lay mhm. ak la nekk jubluwaay ba yéen kaay yu bëri daal dinañ ci xëy ni ki tey jiley démb nag déglu bi yàgg woon lool ci ñi nga xam ne ñoom ñooy àttekat yi ñi nga xam ne ñi ñoo taxawloon solol mbubam avocat kii di honorable député Déthié Fall ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy nekk àttekat yi Bougane Guèye Dany loolu ñoom jamono jooju lay ña nga woon ca kër xalif de des euh, Mourides euh, di euh, Serigne Mountakha ngir moom itam daal di koy yeggee jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy gis ci réew mi ngir rek mu daal di ci addu Amadou Ba moom itam jën na ca tekkaral ga mu daal di nekkoon addu ci lu jëm ci li nga xam ne moom mooy tolluwaayu réew mi caaro yi ak lu doy waar li nga xam ne lii moo fa daal di xew loolu tamit nag yéen kaay yu bëri daal dinañ ci xëy ni ki tey jiley li nga xam ne moo xewoon fële tamit nag fa digaloog diggante Maroc mhm. jàmm di lu doy waar loo xam ne li moom itam ay euh, doomu Afrique yu bëri daal di cay ñàkk seen bakkan mm-hmm. euh, ñuy rumandaan naan ndax ay doomu Sénégal bokkuñ fa ba fu ñu toll ni léeragul waaye li leer bu woo daal mooy euh, ñaaw na lool ndax yi lay bi xëy na tax def ci ab taxaw sell bu yaatoo yaatu Sadio léegi ma nga na mu nekk nag loo xam ne lii lu am solo la ci ñi nga xam ne ñi bu doon nag ñoom bintoog ñoom seen moom mën naa leen laaj xam nga ñoom ay ñoom Baba Thiam ay ñoom Adjara looloo leen tere nelaw <laughs> ah euh, ñu ngi nii suñu internet yu baax nag. voilà euh, ñi nga xam ne ñii euh, Mariama ñi ngi ñi ngi ànd ak ñun ci rawatina waa bitim réew. tout à fait Laye Diop Jacques Lo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuy di leen ziar baax nee fan lañu réeroon. Mm-hmm. nee na fan. fan lañu réeroon waaw. Ah. dañoo dañ dañ ñoo gëj a dégg. ah ñu fee dégg kat. benn fan la du yoon benn fan la mais borom Kaolack dañu gisul. ah ñoro de moom. am nga lu ma ci waxaat bu ne ma ne <laughs> soo ma si laajee soo ma si laajee damay tontu ma tontoo fi mu toll nii ñu ne waaw kii moom tey ah te te te nekk mën naa nekk ab jiw te fi mu toll nii moo xam naa mi ngi taxaw mi ngi toog di ñu seetaan. te ah, xam naa ne fu mu ne nii mi ngi gàddu bi gëm ak fëyam. waaw mi ngi ba maaw mais nag euh, rakam rek la ah, am na yoo xam ne moo ko waxee jaru tontu. ah kon Aïcha boog ñu bàyyi la nga dawal. <laughs> alors Vox Populi euh, ni nga ko ni nga ko waxee noonu la daal di xëyee Mor Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar yow itam bu baax euh, Vox Populi ci loolu la daal di xëy ci Déthié Fall ak Ahmed Aïdara bay nañ leen nag euh, waaye ba tey am na luy yoon gàll ci seen loos. Mhm. lii ni kaay daal ne euh, ñëw ne bu dee euh, de honorable député Déthié Fall moom bay nañ ko mu dem naam waaye juróom benn weer lañ na ko bul defati benn njuumte. sursi lañ ko béyee. Mhm. ba noppi na ko lu toll ci ñaar fukki junni da nga koy génne jox ko ni ndàmpaay. Mhm. bu dee Ahmed Aïdara moom benn weer lañ ko daal di dóor yoo xam ne nag du ko tëdd. moom itam ne nañ ko bu fi defati lenn loo xam ne li day tax nga nga jot yoon. Euh, un mois sursis la euh, ba noppi day génn fukki junni yoo xam ne da koy joxe ni nga xam ne moom mooy wàllu euh, ndàmpaay la xewoon ni ci démb ci diggante àttekat bi ak ñaar ñile lay yéen kaay daal na ci ñëwaat avocat yi nag ñoom nee nañu naam ne bay nañu kii di honorable député maam Diarra Fam honorable député Déthié Fall ba ci maire Ahmed Aïdara waaye nee nañu ñoom avocat yi nee nañ dañu def appel ndax euh, li leen daan ay sursis yooyu ànduñ ca ndàmpaay tamit waruñ ko joxe ndax lañ leen tuumaal dara lañ ca daal di euh, deful avocat ñooy wax ndax nee nañ fi ñu toll nii xeex dong mooy tax askan wi génn ci buum ak nooteel gi nga xam ne gi moom la ñu daal di yeew ci seen euh, baat di leen daal di ñoddi hmm. loolu ñu ne dañ ko daal di seetaan lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñett ñoo xam ne ñoom itam dañ leen tegoon loxo ci manifester yi nga xam dañ ko tere woon ñoom ñëpp bu ñu dañ leen a bàyyi mhm. euh, ñu daal dem euh, ñibbi euh, loolu lay nag ki xam ne kii moom mooy Moustapha Mbaba Guirassy moom nag ma ngay wax ak président Macky Sall mhm. waaw nee na président Macky Sall woota wat ndax dangaa war a nag wax dëgg fa yàlla fi la yàlla teg dangaa war a am loo xam ne danga koy wanaasu Mm-hmm. ah am loo xam ne lii da ko war a tànqamlu mm-hmm. am loo xam ne lii da ngaa war a yërëm ñi nga xam ne ñoom nga daal di euh, jiite tey moytu yu bëree bëree bëri tey jéggale surtout tey jéggale euh, tey bañ rek euh, ku la wokk nga xuri ko mm-hmm. loolu léegi lépp nag Mbaba Guirassy ne président Macky Sall del moytu li ni mel ndax fi ñu toll nii jàmmi réew mi daanaka bu doon téeméer jàpp na juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yëpp mi ngi ci say yoxo boo ko daal di bëggee dana daal di am waa sàmm ñoom itam ne jàmm dong moo daal war a am te dañ ko Mm-hmm. ndax bu ñu ko waxtaanee wut euh, Babacar Mbuub ak i àndandoom ne mën nañoo gis lu gën a ñaaw ci réewum Sénégal rawatina ci wote yi ñu daal di dëgmal ndax kàddu yi bu gën a ñaaw nga nas bee la mm-hmm. tontante yi waaye it mbirum mbañeel gi xam ne gii au lieu que mu nekk mbirum adversité euh, Mariama dañoo gis ne mbirum animosité la euh, daanaka mbirum mbañeel moo xam ne mii tamit nag dafa doy waar lool loolu lépp nag moo tax Babacar Mbuub ak i àndandoom ne président Macky Sall na def jéego bu njëkk bi pour wane ne bëgg na jàmm ci réewum Sénégal bu defee ñu nekk ci kujje gi ñoom it itam am mat gu toll li ne danañu toog ñoom ñëpp ci mpinc ñu waxtaanee jàmmi réewum Sénégal. loolu am na solo. waaw foog naa ni jàmm moom moo ëpp lépp. jàmm gën jama. jàmm waa kay méngoo hmm? am na solo en tout cas waaw jàmm gën jama. nañu nañu bàyyee xel message bi rek foog naa loolu mooy euh, li jar a wax. ah waaw. li nga xam ne moom la euh, kilifa diina yi di wax. ñu ko hmm. ñu ñu bàyyee ko xel rek. waaw jama doxal jàmm mhm. kenn ku ne na fi nga toog doo fa jóg. Mhm. Ah, beneen beneen beneen mbir lay doon. Mhm. te réew moo ci yàqu. waaw te Mamadou Dia daa wax ne ki bëggam réew ak ki jiite ñoo war bokk benn bëgg maanaam réew mi ko war a ki nekk ci réew ku ko kuu wala ku koy indil ay fitna waaye ki a jiite réew mi également mhm. mhm. xam ne dana war dana tax ba mën a liggéey mhm. hmm? kon nag euh, loolu lu ci lu ci lu ci am solo la te euh, artu nag moo gën àtte euh, aji waxkat gi moom day day day wax fu mu war a toll nay wax rek waaye noppi ba ndox mi tuuru ngay ñëw naan mënoon naa bañ a tuuru ak ñoom seet moom loolu jarul wax waaw te nii laa defoon day yokk ab sàgganu am na ñoo mm-hmm. xam ñi nag dañ naan xam naa ñu ngi toog di ñu seetaan naan déedéet bu ngeen fii ay naafiq ngeen bu ngeen bëggee jàmm réew mi jàmm ji du jàmm bu jàmm amee jàmmi réew mi yëpp la mm-hmm. ñun mën nañoo bañ a nekk si jàmm Macky Sall nekk si jàmm di mm-hmm. moom ñoo ngi koy garde keneen ñoo ngi koy kii mais ñun ñi nga xam ne ci ah. ci askan mi lay métti rek waaw ci askan lay métti rek ah, mën na métti ci moom de mais hmm. quatre-vingt-dix-neuf quatre vingt dix pour cent ci askan lay gën a am jeexantal ah. kon nag jàmm moom bu ñu ko bëggee ñun ñëpp nañ ci dox nañ ci wax nañ ko doxee nañ ko waxee waaw nañ ci dox nañ ci wax du la tere nag li nga bëgg ak li nga gëm nga xeex ko ba mu hmm. sëkk hmm. waaw ndax léeg-léeg fi nii am nit koo xam ne da lay bëgg a jàppale kon nag euh, loolu. yéen i kat na ci ñëw ba tamit daal di ñëw la xewoon fële ci diwaan bu waa euh, Maroc président Macky Sall euh, ne fi ñu toll nii daal moom daanaka am na lu ko métti lool xolam jeex na lool ca la mu xew la xew fële ca Melilla fële ca fa frontière diggante Maroc ak Espagne Boubacar sëy moom daanaka duppee ko ab génocide boo xam ne bii daal daanaka lu doy waar la waa Horizon Sans Frontières ne lii nag dafa war a tax ba fi ñu toll nii réewi Afrique yi yëpp. daal di jël ab bis boo xam ne dañ koy def dëj mm. ndax fanweer ak juróom-ñaar daanaka lu mu néew néew ñàkk seen bakkan euh, tiis gënu ko rëy tis gënu ko lay mais euh, euh, maa ngi maa ngi gis nit ñi di ñaawlu benn fee boo xam ne kilifa yi ŋànk li jëm ci fànn bi ñoo ko yor mm-hmm. maanaam ba tey mënuñu wax chiffre exact ci mm-hmm. euh, li li nga xam ne moo di cas Sénégal maanaam mm-hmm. est am na doomi Sénégal ñaata lañ toll lim bi xam nga loolu tamit dafay xaw a doy ba ba léegi ñi ngi génn di ñaawlu c'est vrai que ñaawlu na ñëpp a koy ñaawlu mais aussi foog tamit bu ñuy wax ak askan wi ñu wax leen lu ñu mën a dégg tamit ci lay bokk mais ba tey ji xamuñu doomu Sénégal yi ndax ñi ngi ci waaw bu fekkee ñi ngi ci également lim bi te foog naa aussi tamit war nañ ci euh, war a gën a mën a gaawal seen taxawaay bu baax a baax comme ça ñu mën a xam euh, li jëm ci Sénégal fu mu féetewoo. Mhm. en tout cas li nga wax lu am solo xam nga euh, gaañ moom lu ñu bëree bëri léegi bu ñu tukki duñu tàggoo. Mhm. léeg boo boo déggee sax dañ léeg-léeg nga bëgg a tukki sax sa yaay na la demal ba yegg. Mhm. doo ko woote. Ah, ndax boo dee mën nañ laa lii suñuy xeetu ngëm-ngëm la. waaye ñi nga xam ne dañoo nekkoon Maroc. Euh, fi nga xam ne xam nga Maroc ak Espagne soriwul. Mhm. Ah, mbiru Mor la nag ndax moom mooy def débat de la xam naa dana am na am lu bëri loo xam ne mën na cee wax. Mhm. ngoon également édition spéciale ak Adjara mhm. euh, danañ ci danañ ci junj waaye li nga xam ne moo ci am solo te nga wax ko rek mooy euh, lu ñu war a gaawalool la. ndax bu fekkee ne daanaka lu ëpp ñaari téeméeri doomu ñaari téeméeri junni ci ay doomu réew yu Afrique. dañoo dañoo dañoo dem. Mm-hmm. wax dëgg fa yàlla war nañoo dépêché même bu fekkee ne am nañ fa consulat. Mm-hmm. wala kii euh, ñam ña leen fa nekkal war nañoo dépêché nu mu gën a gaawee. Mm-hmm. dem foofa xam ñi nga xam ñi faatu yàlla ñaanuñ ah, faatu yàlla euh, ah, nga gaaw xettali leen même bu fekkee ne ba ñu dem tàgguwul la même bu fekkee ne xëy na fa ñu jaar. du foofa de manière clandestine lañ ko def mais ak lu ci mën di doon lu ne sénégalais fu mu di nekk rek mhm. état bu moo ko war a aar. tout à fait ah. Mhm. am na yeneen réew yoo xam ne dañoo farlu lool ci seen i doom. Mhm. am na ñoo xam ne ñi tey laa fi mu toll nii doomu Amérique bu ñëwoon fii nga laal ko tey Mariama euh, dëkk bi ah? bu fekkee ne tey am na beneen doomu réew boo xam ne bii Guinée wala Gambie wala leneen da ngay gi cest loolu da war a waggar wane na sa doom da ko fonk ba nga xam ne bii tey am na nu muy demee tey kenn ñi mu koo laal ci yenn yi mais nag Euh, ñun tam war nañoo fo fonk fonk fonk suñu bopp quand bu ñuy dem yenn yi wala bu fekkee ne dem nga ba tukki dem ci benn dëkk nga dem yëglu ca consulat ba waaye am na ñoo xam ne dañuy nëbbatu mm. ah ngaa faatu fi ñu te kenn du ko yëg xam nga yàgg nañu wax ay recensement fexe ba recensement ñu xam ne ñoom ñëpp mais ñii nga xam ne dañoo bëggoon a jógee Maroc bëtt frontière bi mm-hmm. pour dugg Espagne mm-hmm. daanaka yor ay xeer ay yeneen ak yeneen lu lépp pour rek Euh, maap ci nga xam ne moom mooy euh, grillage bi mhm. dagg ko jàll mhm. ba alkaati yi na ñoom affaire bi dépassé leen mhm. ba nga xam ne bi ñoom itam dañoo taxaw carrément que ne ñoom itam di sànni leen pour euh, am ñoo xam ni xam nañ ci am na ñeneen ñu ci loolu dafa nekk loo xam ne lu doy waar la waaye nañu dem taxawu leen comme ni nga ko waxee kilifa yi nañu dem taxawu leen bu baax a baax parce que tey ku sa ku amoon sa doom tey nga ko doon dégg ci dig digal boobu tey sa xel dalu parce que naan yàgg naa ndax bokk na ci ak bokku ci mhm. ndax mu ngay dund ndax dee mhm. yooyu nag yow mi nga xam ne yaay état rek euh, yaa yaa ñu ci mën a xettali moo tax état mhm. jara fonk waaw moo boo ne jar naa fonk boo nekkee ci xat-xat rek ngay xam ne alkaati jar naa fonk tout à fait ah bërki démboo njaay bébé ay def miir tey seen mbokk fu ne def nañ fa dañu mujj def benn SOS état mais xoolal policiers yi tekk ak tey gin ci ànd ak di def enquête di def enquête ah? ñu ne non dañuy fésal ay vidéo ñu naan leen bu leen fésal ay vidéo parce que mm-hmm. dañoo nekk ci ay piste mm-hmm. may ñu rek ah? mm-hmm. jaaxle nañu mais da gis ñoom dañ koo liggéey liggéey bu set ma nga xam ne bii tey fexe nañ ba seen doom del ci waat jàmm ak salaam keneen tamit tey ku nekk ci parce que tey tey tey fi nekk ni tey ña nekk tey ca Maroc kan lañ mën a wax tey duñu wax opposition bu Sénégal duñu wax société civile bu Sénégal dañ naan i njaboot moo du du du kenn nit koo xam ne kii moo koy doxal. Mhm. moo tax ñu war koo dooleel dooleel suñu institution ba nga xam ne bii tey lépp loo xam ne dalaa war tey man du ma joxoñ baaraam tuma kenn. Mhm. dama naan état bu Sénégal. prés euh, ci ci njiit la président Macky Sall. Mhm. gestul say doom yi nekk. ya nekk Maroc gestul say doom yi nga xam ne yi ñoom ñoo nekk Espagne gestul say doom yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ñii ñu ngi ci biir kaso bi ñii amuñ ku leen plaideel ñii amuñ ku leen lii ñii te leen gars yëguñ ko sax ñii ñu ngi ci lii moo tax tey képp ku man di ñëw. njiitu réew mu mën di nekk dañ ko war a mën a dooleel. ci ay mm-hmm. institution yi mu dooleel institution yi bu ko defee nag la ci des ah, bu ko defee nag su noonu nag kenn ku nekk am na sañ-sañu xeex ko mais métti na yàlla na yàlla dimbale ba euh, li mu leer euh, nañ lu ci am solo la. Moussa ñu ngi nuyu Moussa Konté mm-hmm. ak Abou Sy. ayca waaw mi ngi noonu leer na. leer na nañ. jeex na ñu enquête quotidien euh, Mariama moom dafa xëy rek xëy fi nga xam ne fii moom mooy euh, kaso bu sibi xotaan mhm. mooy gars yi dañ naan gan moo ci leen tabax kaso ndax tabax kaso dugg ci xam nga loolu buñ ko gëmee kenn tabax kaso Mariama ah est-ce suñu autorités yi amul ñu ko gëm ah xanaa ko gas bàmmeel dugg ci kon ah, ah déet nañu nañu def yi nañ koy tabax muy muy yaatu ah xam nga lu ma gën a neex ci déet mu ma yàlla bu ma neex mënu ma gën a neex ci kaso bi kaso bi dara neex <laughs> ma déedéet nga déedéet. dama ca Mariam da ngaa baax. dama ca boo ko Souleymane bu doon Souleymane dama yegg foo xam ne fii daanaka dana wax loolu loo xam ne lii samay mbokk dañ may wax dama gën mooy. Souleymane ah ci kaso yi nga ne de. Hmm, déet déet yàlla tere bul ne <laughs> ni nga ko waxee baaxul de. Hmm? daa may ci ma bàyyi la ma bàyyi la nga doxal. ok <laughs> mi ngi noonu en tout cas yéen kaay bi dafa xëy defi nataalu kaso ba. Mhm. kaso bu sibi xotaan bi ñu tabax fële sibi xotaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon xam nga am na kaso yu bëree bëri fi mu toll nii leen tax a gën a siiw. ay mhm. kilifa yu mag lañ fay mas a denc. Mhm. ah léeg nga ne rëbës kilifa gu mag gi mas nañ faa jaar mas na faa yenn. mas nañ faa tëj lii ah tey nag bërki démboo Njaay Euh, kii di Ahmed Aydara honorable député Mame Diarra Fam ak honorable euh, député Déthié Fall ñi nga xam ne leen fa yóbbuwoon euh, tax na nag ba kaso ba gën a yokk aw ñu gën koo daal di xam mhm. xam nga kaso ba bokkoon na ci li koy yëkkati woon fexe ko def ba nga xam ne bi ña fay ñëw ëllëg dañ leen ñan fay denc ñan leen fay denc dañ leen jàngal mbirum mbay mhm. hmm? ndax mu mooy li ñuy wax insertion bi mhm. xam nga léeg-léeg nga jàpp la léeg par erreur wala ñu jàpp la par leneen wala ñu jàpp la ci loo xam ne téye ko woon mais ci biir kaso bi bi war nañ laa mën a fexe ba boo ñëwee ñu jàngal la wàllu mbay wala jàngal la tëyër fekkee tëyër nga ñu def la mettre dans des conditions yoo xam ne da mën a wéyal sa liggéey ba nga xam ni boo xëyee mën nga sax xëy di joxe di joxe di joxe dépense mm-hmm. wala sax boo xëy boo boo ci génnee mm-hmm. daanaka doo am lenn loo xam ne li société bi dala ciy raw bu ko defee nga mën ko nga mën ko nga mën ko wéyle waaye am na ñoo xam ne ñii tey mm-hmm. Marek day taali euh, kaso bi ñu ko duppee mag maison de d'arrêt et de correction mais am na ñoo xam ne correction amu fa daanaka boo fa génnee da nga yàqu da ngay téppirlu euh, gën a euh, doy waar te loolu nag moo tax mag bi moom war nañ koo xoolaat da ci bay lu tax ñu tuddee ko MAC hmm, di maison d'arrêt et et de correction en tout cas yéen i kaay yu bëri daal dinañ ci xëy ci li nga xam ne mooy euh, kaso bu euh, boobu lay nekk fële nga xam ne mooy sibi xotaan euh, ak li nga xam ne li moom mooy ñan fa daal di dencoon yéen i na ci ñëw ci ne taax moom mu lay daanaka mën naa def lu ëpp sax juróomi téeméeri doomu aadama mm. waaw juróomi téeméeri doomu aadama mën na koo def waaw juróomi téeméer mooy ñaata juróomi mooy mooy cinq cent ah, waaw mooy cinq cinq cent doomu aadama mhm. waaw en tout cas daal war nañ koo kii bu ko defee yeneen cas yi nga xam ni euh, dafa xat euh, ñu mën koo daal di euh, féexal ngir bu ko defee ñëpp mën cee daal di gis seen bopp ak lu ci mën doon lu ne yéen kay daan ci ñëw ca diwaan bu Kaolack également mhm. wàllu nawet bi mi ngi door xam nga yéen moom fi mu toll nii bu ne nawet bi rek. Mhm. daanaka ngeen jaaxle yéen waa Kër Massar. Ah? yéen waa Kër Massar dégguma leen ngeen wax nag bu kii bi ñëwee na ah daam ñi ngi ñi ngi wax liggéey baa ngi dem. non ñi ngi wax waa liggéey baa ngi dem d'accord mais nag gars yi ñi ngi kaas parce que ah. xëy na li amoon daaw ñi ngi ñaan yàlla mu bañ a amaat ah, rek. ndax xëy na kilifa yi peut-être nañ ci ay leçon ndax yéen gis ngeen liggéey ma ngay dem sur place liggéey ba moom ma ngay avancé moom. Hmm. ma ngay avancé. yaa ko wax. waaw mi ngi avancé. yaakaar nga ne mbënd du am. <laughs> loolu la ñuy loolu la ñuy ñaan en tout cas. <laughs> <laughs> baax mi ngi noonu en tout cas daal ca diwaan bu Kaolack moom euh, loolu la ñu daal di bëgg lool moo taxit ña ngay def ay liggéeyu am solo euh, ngir euh, fexe ba ndox mi bu ñëwee bi la yoon nawet bi du leen benn jafe-jafe Serigne Mbaye Thiam. Mhm. di jëriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu ndox mi ket gi moo fa daal di demoon nemmeeku makkaan yi nga xam ne dañuy nemmeeku ne day daal di taa. Mhm. ngir ñu daal di cay mën a wax Sophie Galadima moom itam opération fële ca Joal Fadiouth fa la fekk itam ci la daal di taxaw euh, temm ne li mu bëgg mooy mm, bésub setal xanaa gars yi dañoo fàtte bésub setal dañoo xam nañ koy def di bésub setal mooy set setal ba. set setal bi daan biñ daan def ban ko dam daan def te lancé woon ko fële ca Mermoz. Mhm. bésub setal lañ ko tudd euh, set setal lañ ko tuddee woon ñëw tuddeewaat ko bésub setal ah ni euh, ngi nun daal kenn ku nekk daal fa nga nekk setal ko wecc bu ko def mbeddam buur. Hmm? waaw amoon amoon na solo de en hmm, amoon na solo kay amoon na solo. waaw waaye mhm. de moom engouement ba mu amoon de. Sénégal moom dañuy yëkkati dara waaye suivi bi mooy problème mi ngi noonu euh, alors mi ngi noonu euh, ñaari euh, gaal yu mbëkkante gaal également bokk na ci gaalub réewum Sénégal ak gaalub réewum Chine mhm. ak looco ba daanaka ñaari doomu aadama ñàkk ci seen bakkan am na ci koo xam ne ki mu def na mër ba tey kenn tegu ko ay gëtt mhm. charge yu Pastef xam am nañu ay charge mhm. magi Pastef waaw magi Pastef sa papa ci la bokk wala bokku ci déet sama papa moom deful politique moom ah. déet sama moom ko waxut wala. non moom moom dafa def moom farul fenn moom. ci réew mi la far. moom daal ci réew mi daal la far mais faralut ak kenn. kan la voteel gën deux mille dix neuf. <laughs> waa daam nag foo mës a gis nag. vote vote mais déet déedéet. yow su papa bi ko wax. déedéet daam nag yow koo koo voteloon non yow non non loolu du débat bi dama laa ah, njëkk a laaj question réponse dama damay laaj. non non dama laa laaj yow sa papa kan la wotee loolu. waaw d'accord mooy balaa la wotee ba. maire moo fa la sa maire am na maire boo xamante ne boo ko fa tamit dina ma jaaxal. <laughs> jigéen de booy tuumalanteeg moom bu la rek. <laughs> ah loolu daam leer na ñëpp sa maire bi. Mor Mbaye jërëjëf ñu ngi lay ziar. sa maire bi sa xarit bi hmm. loolu hmm? kay lenn ñëpp. <laughs> borom teraanga la demoon te te te man magi Pastef yi laay wax. ma ne ndax sa baab ci la bokk wala bokk bàmmee ci laa jëm. voilà léegi demal sa baab ci magi Pastef yi la bokk wala. <laughs> non sama baab politique wul. magi APR la bokk non sama baab moom daal moom réew mi daal la faral mais moom politique wul waaw dëgg dëgg. kan la wootee loolu 2022 bi local yi. loolu laa doon laaj yow kan nga voté lool. ma pour man yéen ñaar yéen a bokk. yow sa papa day wote di yow xanaa loolu loolu dara nekku ci de lu ma leen yow sa papa ni mu nekkee sa xarit wax na la ku ñu woteel xalaa kay da koy nëbbu loolu dara di weesu na élection yi weesu na ñu ñu ñu ñu jàll ci ah, magu loolu maa ngi wax sa maire bi nangoo maa da man fii laa nekkoon di ah yow dama woon campagne jour élection fii laa yàlla tere yàlla tere <laughs> sama xarit mooy Sénégal ah. mi ngi noonu naa bàyyi ba Souleymane en tout cas yéen ci ñëw Souleymane de meeram moo falu moom. Euh, <laughs> mi ngi noonu fii la toog di campagne am. mooy kan. xam naa L61 ah ku faloo ñu reer sa gannaaw de. Olof Ndiaye ko de non man ay non bul bul dugg si bul na yaa ngi tooñ. loolu Olof Ndiaye ko. waaw. Ah. nijaayam nag moom dafa wàcc maalaw. nijaay kan la maalaw soo. ah waaw waaw waaw bu ne assemblée nationale dafa fi indi gën dama koy kii. si mooy nijaay Souleymane de. si si. mooy nijaay Souleymane fii la fi <laughs> dañu ko wàcce bokk ci député ci liste bi bokk ci de investir ko de. xam nga def nañ lu ñaaw mu hmm? <laughs> ngi noonu en daal ak la ci mën doolu ne magi Pastef fii ah. euh, di euh, charge yi ñoom itam ne tey lañu ñu gën a taxaw ngir taxaw ki xam ne kii mooy Ousmane Sonko waaye daal di fi euh, dindi li nga xam ne mooy système bi nga xam ne dañoo jàpp ne moo yàq réew mm-hmm. bu ko defee ñu indi ci beneen système bu bees boo xam ne réew mi dana nekk ci anam bu mucc ayib ñoom sunu bàyyi àll kan ak ñañu ànd ak mm-hmm. ñoom ñëpp nag taxaw nañu ne fi ñu toll nii réew mi dafa yàqu yàqeet te président Macky Sall ak ñi mu ànd ak ñoo ko daal daal di euh, def. mu mm. taxit li ñu daal di bëgg daal mooy Ousmane Sonko moom kenn du na ko euh, sa bët bi soofang si dañ koy fekkee danañu euh, taxaw ndax ay mag lañ yoo xam ne fekkee nañ démb fekkee tey kon nag tey jii moom du ñu nangu mukk li nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ñu koy sàkkal pexe. Mm-hmm. waaw wax nañu de waaw. message passif. waaw message passif waaw. dañuy artu de. après am na rek. Mm-hmm. magi Pastef yi. waaye sage dafa am leneen lu mu tekki. Hmm. dafa am leneen lu mu tekki. nañu wax mag waaw surtout ci réew mi surtout ci réew mi non bu ñu la waxee sage il faut pas ñuy galvauder li nga xam ne mooy terme sage. sage. sage sage dafa garaaw. Hmm. sage fépp boo waxee dañ lay war a dégg. Hmm. par exemple nga nekk Kër Massar dañ dañ ngaa naan kii de sage la. maanaam kër gu am jafe-jafe mooy ñëw saafara. te bu waxee ñun ñëpp dañ koy dégg. kooku nag du far. saas du far de. du far waaw léegi pourquoi ñoom ñu far gan ba na ba saas du far. ah loolu. waaw waaw bien sûr. dañ saa dañuy jël benn mot ba ko galvaudé. Mhm. di ko di di ci kii saas dëgg dëgg dëgg boo nekkee ci dëkk. saas yi duñ fa bëri ay général benn lañ wala ñaar lañ. Mhm. seen kër ñaanuñ ko yàlla mais bu fa xuloo amee dëgg-dëgg dañ naan dem leen wooy paa diw. Mhm. gis nga paa lañ ko tuddee mais saas la parce que buñ ñëwee. tey waaw sa mag wala sa bab wala sa leneen lu mu jàppoon lu mu ko métti métti mhm. bu ne toog la wala sax bu nu ko séenee muy ñëw sax dañu noppi parce que dañ ko jox cir boobu mhm. parce que ni mel koñ bi la mhm. parce que nit ñi respecté nañ ko jullite na maandu na kenn xamul farut fenn lu may jàmmi réew moo ko tax a jóg ba pare te mën na boppam ci lépp taxawaalu deful dara yooyu yëpp nag mooy mooy mooy mooy sage waaw te nag léegi nag dañ ko rafle en war nga bëy xel li wax parce que li wax moom daanaka boo xoolee ba xool sa njëriñ la mhm. mais moom amu ci lenn loo xam ne li da ko da ko ci xëcc mhm. ah yu bëri nag dëkk yu bëri bëri nag dañoo amoon yooyu mhm. ñun suñu dëkk rek da ngay dem rek mooy daan rek bu coow daa am léegi dañ naan police daawut am léegi li remplacé li nga xam ne mooy sages mooy police parce que léegi kenn déggal tut kenn da ngay da ngay da ngay xuloo sax am mag moo xam ne am na téeméeri at danaan man du ma génn sama néeg parce que bu ma demee foofu dañ wax loo métti ah. gis nga génération bi la. ah yi yoo xam ni da ngay waaru boo ñëwee ñu wax la sa bopp na la lii ak lii sa yónnee ko si sa ceebu lii du lu moo sa ceebu lii pourtant ki ñëw di lay yedd di la wax teyal moo tax saas yi yal na leen yàlla sàmm. Mhm. aar leen ma nga xam ne bi euh, parce que toll nañ foo xam ne fii saas rek moo mën a génn wax. gën ñu loo bëgg waa waa kii Pastef. ñu ñu changé dama ne sage sage du far. ok man de yi ma xam duñ far. duñ far waaw. d'accord na ay sage ñoom itam de. dañ naan tuddee seen mais change du far change da ngay woote li nga xam ne change da nekk koo xam ne ki boo waxee tey ñëpp ngay waxal tey. Mhm. ñëpp ci mën a gis seen bopp. Mhm. Ah, li ngay wax nga wax ko de manière des désintéressante. Mhm. nga xam ne yow leer na la lii da nga ko wax pour jàmmi réew mi kese. mais waxoo ko pour lenn loo ci xam ne da parce que amoo ci dara. li nga ci am rek mooy jàmm yi xëy na jàmm réew mi li nga ci am rek mooy jàmm nga ci yàlla ah, te loolu mag ñu bëree li nga joxe mooy ci gox yi dañ la dañ dañ leen a bu ñëwee. lépp loo man doon mën a jàpp léegi da ngay bëgg a ñëw sax di kalaami nii naan da koy porter plainte bu ñëwee nga ba ko. teg naa lépp ci suuf ndax comme ba bay di wax na wala yaa di wax na dama koy teg ci suuf. Mm-hmm. lu neex ak ma naq dama koy teg ci suuf. Mm-hmm. parce que lan la parce que am na foo ko teg. am ko teg ah. Mm-hmm. bu sa bët xonqee da nga koy gis. bu leneen kii danga koy gis. ñëw na la takkal na la lii ñëw la def na la comme doom këram ubbi na ko nit ñi respecté nañ ko ba nga xam ne bii lépp lu wàcc koñ bi moom la ñuy def ah? yooyu nag la ñu war a gën a dooleel ñoom itam ñu gën a góorgóorlu position boobu nga xam dañ ko am nga xam ne boo wax boo nekkee si position boo xam ne boo waxee ñëpp dañ lay déggal. Mhm. fexeel ba ya nga xam li la yàlla may. Mhm. lan la ah. loolu am na solo waaw en tout cas mi ngi noonu waaye nag euh, penc moo gis moom. ay mhm. mag ak i xale dañ cee baax. dañ cee bokk waaw léegi nag fi mu toll nii nag gars mag ñi dañuy dem dañuy yóbbaale gone ci penc bi. ah noonu taala xuma ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu Mor Mbaye di nuyu Binta Fati di nuyu Maodo Sarr mhm. ah eh, yi yëpp fi ñu toll ñu ngi lay ñu ngi lay ziar nee nañ tey moom plateau bi wax dëgg yàlla yanj na plateau bi tey dafa àla daw mi hmm, waaw man maa ngi nuyu Souleymane ñi ñi dañoo mën a jaxasi nit trop Babacar mi ngi ma naan sax est-ce du jaaree dàq fa Souleymane déet yàlla daan Souleymane kenn du ko dàq tama koy fekkee ah. doomu day juuju kay boobaa ma woo rek euh, euh, euh, Babacar <laughs> bu ñu bokkee moom plateau ah ma ah, euh, Babacar Babacar Purux. mais studio ouvert bi tamit bu ngeen bu ngeen ko bàyyee Purux di du gërëm ñoom daaw. non yéen seen ñaari fii yi boobu <laughs> Babacar ba ngay def studio ouvert ga le 8 mars day am deux vues deux deux commentaires. boobu am nga lu métti. mais daam daam daam daam loolu loolu mais loolu c'était daam. dama jàpp ni xëy na am na ñu nekkoon ci ginnaaw. di def la. bon je sais pas. na gars yi leen. tey tey gars yi leen mën na am de. comme tey ay jigéen a toog mais xam nga tamit ay jigéen ñun ñoo toog xoolal lii lii mas nga ko am. Ah, na moo tax dina ñëw si émission bi da ngeen fay lu yàgg da ngeen kii yow Marie moom du nga fi bokk ci émission mukk ci àddina ñun di ko fekkee lu ma feebar feebar dinaa soox ñëw. Hmm? wala Souleymane Sokh ñëw. yàlla hmm? baax na waaw. Marie Ngom foog naa ne mi ngi dégg message beneen yoon moom beneen yoon da ngeen ni xëy si rek ñu ne leen déedéet mën ngeen mën ngeen wàcc. ñëw di làkk ay tubaab gars yi naan yéen revue de presse heure bi tubaab kañ ngeen ko daa def <laughs> ma ne ko pourtant wolof lay làkk de Souleymane keroog dafa am lu ko métti. Sadio Touré jërëjëf gis nga ko. da ngeen di saboté <laughs> ñu ngi leen nuyu di leen ziar ñi nga xam ne ñooy réagir euh, ci page Facebook bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax daam alors Babacar ñu ñëw les échos les échos yéen waaw les échos yéen gis nga noonu. Mhm. les échos yéen a kaay li mu xëyee mooy euh, Déthié euh, Fall juróom benn weer yoo xam ne du ko tëdd lañu ko daal di euh, daan bay ko mu génn ni ki dem ba noppi day génn lu daal di toll ci ñaar fukki junni yoo xam ni da koy daal joxe ni wàllu ndàmpaay ndax lañu ko daal di toppee mooy bokk ci am ndaje moo xam ne dañ koo tere yéen a kaay na cee ñëw ne nag Déthié Fall mii. Mariam. Mhm. Mhm. fii mu teg tànkam yoon yu mu jaar. Mhm. bu ko wàccul. dana li dal Karim Wade ak Khalifa Sall dana ko dal. moom day ci faal waaw. gars yi moom fi mu toll nii daanaka bu ñu la tëjee juróom-benn weer rek boo mooy yaa ngi ci yoonu bëgg a yàq say keet ba doo mën a bokk ci yenn kii. Hmm? waaw loolu nag ci yoonu la nekk. dëcc bu wàccul yoon wi daal kër ga Karim dugg ak Khalifa Sall dana dugg si kër googu. ndax yoon la la la màttoon Karim Wade ak Khalifa. waaw yoon woo gis si kër la jëm. waaw yoon woo gis si kër la jëm. te nag xalif euh, dëcc mi ci yoon la jaar ay awkaam nag ne fi ñu toll nii ñoom dañuy defi appel. Mhm. ndax li ñu ko daan duñ ko seetaan tey duñ ko seetaan ëllëg ndax teguñu ci yoon tey teguñu ci yoon ëllëg. Mhm. maam jaara faam ak ñoomu ànd ak euh, ñoom yi euh, tam euh, ca manifester ba mujj nañ leen a bàyyi toppeetuñ leen dara Ahmed Aïdara moom itam daanaka police wala commandant bu police bu Golf Sud la daal di dal ci koom ba noppi mel na kuy neng nengal mhm. Macky Sall mhm. waaw procureur nag moom benn weer bu muy tëdd la waxoon juge moom da ko mujj bàyyi waaw xam nga a mën naa tam na fukki at la bëgg ñu daan ko mm. ah attekat bi atte avocat yi di wax mm. gars yi di wax yéeg ko daanu yéeg ko daanu bay nañ ah, ko bay ñu gënd ko ba ñu bàyyi ko waaw waaye sursis yi nag dañ lay dañ lay araftu mm-hmm. waaw bul bokkat ci yenn nag mm-hmm. waaw fii ak sa sursis bi jeexagul bu ci kii léeg-léeg sax ñu ne del dem di signé ji hmm? alors sommet G7 yi nekkaay bi ne euh, président Macky Sall euh, ma nga fa woon am na nag euh, yetti mbir yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne yi daal na ko fay am lu toll ci juróom benn téeméeri milliards ci dollar moom la ñu daal di jox fësina daal di jox réew yi Afrique yi ci direct juróomi at yi nga xam ne moom lañu ñu daal di dégmal waaye tamit nag ab siège ñu daal di koy am ci biir G20 ak bu Union kenn loolu lépp président Macky Sall moo ko daal di xeex gaz bi tamit nag bokk na ci li nga xam ne li yaakaar nañ ko lool ngir ñu am beneen doxalin bu yees ci senegal waaye ci euh, réew yi Afrique euh, yëpp. loolu la euh, yéenekaay bi daal di xëyee ni ki tey ak manifeste yi nga xam ne di amoon lii di coalition sàmm suñu réew bu Pape Moudou Fall moom nee na nañu wax balaa béy wi mbuus waaw jënax jii di dem suñu tool nii mi ngi jëm ci ñag bi te bu duggee si ñag bi boo mooy ku ko génne ku ko génne dégg dana la jam waaw yéen kaay daal na ci ñëw euh, moom Pape Moudou Fall nag nee na fa mu ko teg mooy ñu ngi ci jamono examen barki démb Ndiaye lañ noppi CFEE yi. Mhm. entrée en sixième ah euh, ndax Guanaa mi ngi am ba déet ah euh, gaa yi ñuy jàll rek ah. Mhm. bu weesoo loolu ñu ngi jëm ci BFM bi ñu ngi jëm ci bac bi. sa bac bi commencé wul démb sax bac technique bi exactement. Mhm. bu nga boole nag léegi ay manifester. mu ne loola mën am jeexantal boo xam ne bi. day am ndax xam nga si manifeste tabaski bi rek tabaski bi rek. voilà mën naa yàqal ñu bëri. Euh, surtout sama mbokki julo yi voilà mi ngi noonu. surtout sama mbokki mhm. julo yi. Mhm. nañ leen moytu nañ leen aar. Mhm. sàmm leen bu ko defee ñu mën a jaay seen alal ci seen tey di bakkan. Ah, waaye jëleel sa coggal fële ca dëkk ba ñëw ñu wax la point de vente fi mu nekk. nga indi foofu ba noppi. guddi jot wala yeneen jot gars yi di mm-hmm. manifester. Mm-hmm. am ñoo xam ne ñi moom ñii gàmm ak ñii ras dem bokkuñu. am ñoo xam ne dañuy euh, euh, nekk ci suuf moom di ronqi say xar ndànk-ndànk. Mm-hmm. di xëcc di kii. lu la fa daal lu ne. yaa ko yóbbee sa bopp bu kenn jàpp nga nit naan nga fi ñu doon da koo kii. alkaati yi point de vente bu ne. état bi yéen lay wax point de vente bu ne yóbbu leen fa ay alkaati yu doy. yoo xam ne dañuy ñëw aar parce que dañuy fay. dañuy am nga sañ-sañu man tam ne li ma bëgg defal leen ma ko. Mhm. na am courant bu doy sëkk na lamp yi tàkk mu leer nañ. Mhm. ah euh, compte bi wàññi nañu ko. Mhm. ci li nga xam ne mooy point de vente yi. bi doon jar quatorze mille saako bi léegi def nañ ko cinq mille francs. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba population yi mën a jot seen xar kenn ku nekk jot. mën a jaay jaay nañu moytu tamit li nga xam ne mooy faux yi. jamono ji gars yi dañ si dañ si kii de. waaw ab taxa ab taxaaru taxañu xaalis lañ lay jox rek. Mhm. nga xool ndekete yow boo xoolee ñaar ñaar wala ñett ñoo ci biir bu baax. ah kii dañ la yónni. ah kan si naka jekk man sàmmkat yi béykat yi nappkat laa fi nekkal. yëgul sama mouvement bi may waaj taxawal. Ah, mouvement lu mu doon. ay mouvement taxaw sàmmkat yi. ah mooy réew mi di. mooy réew mi waaw te du yow rek mooy doxal réew mi nag. man fi mu doon moom daanaka loolu mooy sama kii yow dañ ko Mariam doo ma seetaan doo ma déglu. Ah. baykat yi nappkat yi sàmmkat yi. Mm. man ñoom laa fi nekkal ñun boo leen fi nekk boo fi nekk la ñun kay réew mi nga fi nekk. te te majeure partie bi duñu duñu am ñu leen yeggee seen ay. seen ay doléances jeex na baykat yeeg nappkat yeeg sàmmkat yi. Mm-hmm. waaw ñoom laa fi nekkal. incha allahu rabbi ndax ci ci laa bokk. mouvement bi kañ la. mouvement bi. la ñëw. dana ñëw bu ma ko taxawalee léegi nii gars yi dañuy njort <coughs> bu ma commencé léegi gars yi dañ kii da nga gu ma ko de am na ñuy signaler pour na bëgg nañ ko doon de comme ah, di nga ci Souleymane te fi daal hmm, déet charge de communication xam ndax xam ngeen bay meeg sama kii nappkat yi xam nga jël ab kii taxaw sa mouvement pare gan jël si ñoo xam ne ñii ci clim bi la ñu nekk ki ci kii gan ñu ñëw waxta di wax ak baykat yi di wax ak Souleymane dëgg na ci tool yi de mën a gëj na ci tool yi de Hmm? mouvement bi daal bu kiiwee rek ci charge. incha allah rabi non membre yi kay ngi bindu ndànk-ndànk waaye tey leen rek parce hmm. que vraiment man ba ma koy def man taxaw réew mi rek.

ah dëgg yàlla ah xamuñ am na si ñoo xam ne xamuñ contrat nu mu demee ah tëgg wëndeel leen jaay géej gi te pourtant géej ñoom lañ ko defal ah sàmbaa ngi àll baa ñi ci nekk ñu bari bëri amaana seen jàng soriwul jeex na te li ñuy def duñ leen duñ leen ci convaincre oui oui oui oui loolu aussi c'est revoir mi ngi noonu ñu dem ayca ñu ngi ziar baax Mor uh, Mor ak mm-hmm. uh, Birahim uh, non kii moom day publicité mm-hmm. hmm? waaw ñu ngi koy nuyu di ko ziar ñi nekk ci 3w point africa 7 point tv suñu page facebook bi mhm. euh, seeni commentaire ku bind dinañ ko gis insha allah hmm. waaw noonu ñu dem ñu dem ci bés bi bés bi le jour Mohamed Babacar bés bi le jour xanaa xanaa Mariam dafa ñëw ah koy ziare Mariam Traoré bu ñu mhm. euh, ki mu tudd Mariama Diaw Traoré mhm. bu ñëwee moom liggéey bi day gën a baax waaw kooku jigéen ju mën góor la hmm, kenn du moom démb dafa xëy si lu tax woo ko wax wax nga waxu ko woon démb amut <laughs> ah. day tey moom mi ngi xëy si ko. xam nga yow benn bés kan fii ña ña wàcc nañ la nga xëy si waxuñ la dara nga ñëw nga mer ba fut léegi moom am léegi lu mu def moom ah lijjanti ngeen ko yéen si gannaaw kon baax na démb studio ouvert amut. Ah. léegi lu tax du ko woon na ko amut. mu béy ko ba mu ñëw waaw nga Mariama dafa ponctuel mu béy ko ba mu ñëw waaw mm-hmm. ah, Mariama lii bu ko merut Mariama duutu mer dara si doo dootul mer mais nag moom temps yi day teel a ñibbi gëj naa taseeg moom de Mariama da ngay a ñibbi de del del ci dafay teel a ñibbi torop moom it ah eh Mariama day jaay crème <laughs> rëdi lay jaay rëdi tàkk foofu naa ñu ngi lay nuyu rëdi rëdi lay ah, jaay ah soo soo métier amul de ah? jàpp rek yàlla baax na wóotu naa bu ndey gerdaa ah yee. <laughs> mooy mooy ban. <laughs> daa bàyyi si ñu dem ci bis bi. <laughs> crème yi ñuy jaay ci buntu buntu buntu école yi. ak yeneen ak yeneen nañ koy xool non parce que dafa war a am hygiène. Uh-huh. aussi mm-hmm. dafa am solo. yow ji boo xam ne da nga ko dugal frigo ba mu ne gaaw leen jënd ko balaa yàqu. non du yow de du yow non Mariama Mariama du yow nday geddaadu gii laay wax mi ngi may seetaan non Mariama yow waxuma la yow koy wax dëgg fa yàlla yow. rëdd am na ci benn butéel boo xam ne Souleymane fayu ko ba léegi de. nu mu koy fay dafa yàq du war koo fay c'est normal non gaaw leen jënd ko balaa kii taxaw sama xeex ma ne ki njaay mission ba nga bàyyi ko bii baaxul si yow mais c'est très sérieux ah. tay gi naa ko gis muy jaay sax moom dafa perte. li dem nag ma yaa ma ko wax loolu yaa ma laaj de. daam ñu dem ci bés bi le jour. bés bi le jour. Mariam bés bi le jour dafa ñëw ci li nga xam ne mooy euh, manifeste bi ñu tere woon fukki fan ak euh, juróom-ñaar ci weeru euh, juin bi ñu génn yeewi yeewi nañ leen waaye nag ba tey buum gaa nga seen seen doq waaw ku ci mel ni dëcc bàyyi nañ ko waaye bàyyiwuñ ko dañ koy yolomal rek. Mhm. waaw ñu mel ni fas wooy saan rek dañ koy yolomal rek waaw bu dee ba sori rek. mu dellusiwaat. Mhm. kon euh, bay nañ ko naam mu dem waaye juróom benn weer lañu ko ne ko euh, bul defu naka si noonu dañ laa bay bay niganduko rek lañ la bay maam jaara fa moom itam moom dañ ko mujj a bay ay dara dañ ko mujj a bay waaye benn weer lañ ne ko euh, bul defati benn yëngu-yëngu Guy Marius Sagna xam nga tey lay taxaw ak ñi mu ànd ak waaw ñoom moom tey la ñu war a taxaw fële Ziguinchor ànd sàmm jikko yi ñoom yi tëm ña ngay woo waa yeewi askan di waa ñi nekk ci ñenn ci nekk ci kujj gi ngir ñu daal di bañ a amal seen manifestation Euh, gannaaw suba la wala suba suba suba la. ba gannaaw suba la. de suba la. ah. ma ne am problème de date xanaa nga am wala. ah le vingt di. Ah, suba le vingt suba waaw kon suba la. ah waaw te suba le vingt neuf. le vingt neuf àllarba. Mhm. àllarba du àllarba ëllëg ëllëg waaw. waaw waaye yeewi nag euh, waa ànd sàmm jukkee nag ñoom nee dëgg dëgg bu fekkoon ne waaye yeewi askan ñu ngi leen jéggal. Mhm. duñ ko amal suba waaw. gars yi nag moom xam nga Sonko waxoon na fi ne. Mhm. génn këram. Mhm. wala ñu jël ko yóbbu wala ñu rey ko. gaa yi dina def ma. gaa yi génn këram dana ko def moom. Mhm. waaw. lii de la waxoon. lii la waxoon de dañ ko fàttali rek nag. lii la waxoon. xam naa ne am na ko taxaw gannaan xoolaat rek ak ñoo saytaane. mais moom nii la ko waxee woon waaw nii la ko waxee woon moo tax ñun kay yokkuñ ca. yokkuñ ca wàññiwuñ si nii la ko waxee woon nii la ko waxee woon. dama ko njar. Mhm. man damaa njar wax ji mi ngi en tout cas yéen i kaay ñëw ci diggante Joe Biden ak Scholz euh, président Macky euh, Sall ca G7 daal dina ciy ñëwaat lu jëm ci li nga xam ne ni moom mooy la xewoon fële ca fa digaloo diggante Maroc ak Espagne. Mhm. ay doomu Afrique yoo xam ne yii lay euh, daanaka dañ faa am ay jafe-jafe ñu doon bëgg a maap bayee ko Maroc. bëtt frontière ya dugg Espagne ba bëgg dagg li nga xam mooy grillage ba jàll. tax na nag ba ñi nga xam ñooy alkaati yee génne woon ñoom itam seen i grenade lacrymogène xëpp leen ko euh, ak i bali kawsu euh, du ba rey ay bali kawsu. Mhm. Hmm? lañu leen doon dóor lépp ngir ñu daal tas loolu nag fi ñu nii am na ñoo xam ne xam nañu ñii euh, fi ñu nii dañoo daal di daanu du toll ci daanaka fanweer ak juróom-ñaar daal di ci ñàkk seen bakkan. waaye nag ba fi ñu toll nii daal la ca lëndëm ci li nga xam ne mooy mbir moomu lay. Mhm. mooy ndax am na ay doomu Sénégal. comme ni nga ko waxee woon ci gannaaw. ndax am na ay doomu senegal mhm. ña faatu ñan lañu. Mhm. ak tamit nag fi ñu toll nii lan moo waral li nga xam ne moom muy mbir moomu la ndax horreur la boo xam ne bii. Mhm. Euh, doy na waar euh, lool loolu la nag yéen a kaay bi daan na ci euh, ñëwaat ni ki tey jilee professeur Issa Cheikh euh, Ndiaye euh, lu jëm ci xam ne mooy cancer euh, hyper cancer bi ci la daal di ñëw mhm. ne bu ñuy wax cancer nag dëgg dëgg nag wàllu cigarette seeg alcool bi moom daanaka ku ko moyul moom loo gis ci cancer yow la hmm? mhm. waaw mu ngi noonu wàllum cigarette seeg waaw wàllum cigarette waaw jëfandikoo ak alcool bi mhm. ñoom lay hmm? waaw acte euh, de naissance mooy euh, kayitu juddu yoo xam ne léeg-léeg xëy na baaxul am ñoo xam ne dañ ko réerle mhm. euh, diggante daaf ak yenn ci li nga xam ne nag mooy jafe-jafe yi nga xam ne waaye denc dañ koy daal di jànkonteel loolu lay lépp nag tax na ba fi ñu toll nii ñu gis na daal jafe-jafe la ci état civil bu Sénégal naka lay daal debb daal di ci indi saafara ci ñaar fukk ak benneelu xarnu bi nga xam ne bii moom la ñu daal di nekk tout tànk yoo xam ne dañuy juddu te duñ leen a déclaré bëri na lool. Mhm. pourtant léegi da am na ñoo xam ni fi nga juddoo mën nga faa utee kayitu mm. judd yombal nañ lépp voilà yombal nañ ko de léegi nag day am ñoo xam ne dañu a mm-hmm. ah, nga xam ne bii ñu juddoo ba nga fa balaa nga génn rek neel defal leen ma kayitu judd mm-hmm. bu ko defee euh, am na ñoo xam ne ñi daanaka état civil bi day nekk ci wetu euh, li nga xam ne li euh, moom mooy wetu hôpital bi mm-hmm. boo dee lu mel ni roi bu ne fi mu daanaka mook fi nga xam ne fii moom mooy état civil bi presque ñoo dende voilà ñoo nekk presque yéen kaay daan na ñëw gis nga maam jaar faam nee na nee na nee na fi mu toll nii létt yi muy waajal nii. Mhm. mees yi muy waajal. Mhm. mees tabaski la koy tuddee gannaaw génn kaso. ah waaw mees kaso op euh, euh, kaso kaso euh, meesu meesu kaso. après kaso après kaso. waaw nee na moo xew boo tabaski tabaski nee loolu mooy filim bi loolu lay génne. ah lu mu ci jublu moom. déet maanaam mu nekkee woon ci kaso bi. waaw nee na léegi day def laay fi mees yoo xam ne fi mu toll nii da koy génn na léegi après. après mhm. kaso nii laa mel. nee dafa gën a. jekk gën a dafa gën a ah, euh, belli gën a dund waaw ah, euh, gën a kii ndax gars yi toppatoo nañ toppatoo bu cooy ah macha allah mhm. waaw waaw mi ngi noonu en tout cas mi ngi noonu loolu la yéene bi euh, di bis bi le jour xëy ni ki tey Mariama Traoré mhm. ñu ñu jàll ci beneen yëgle ci source a lañ jëm source a Babacar source A li mu euh, xëyee moom itam mooy euh, lu euh, jëm ci xam nga manifeste yi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin bi ñu génn tañ tere woon ko. Mhm. dafa am xale boo xam ne da ci ñàkkoon bakkanam. Mhm. am néewam ma nga ci hôpital la Dantec ba ko ay mbokkam. Mhm. loolu doy mooy kan la ko noonu manifestation. waaw ka ka la ko ca ca Matlaab voilà nañ ko waaye fi ñu toll nii daal booba tey gisuñu ay mbokkam gisuñ ku ñëw ni néew bi sama néew la. waaw xam nga loolu fi mu toll nii doy na waar. doy na waar yéen kaay bi nag daal di ñëwaat moom fi nii euh, ci procureur nag moom fi mu toll nii gannaaw ñàkk pexe pexe la moom fi mu toll nii ma ngay xool moom naka lay daal di def ba euh, xool naka lay daal di def ba joxe ab ndigal di autorisation. pour ñu mën koo denc denc ko. Hmm? Mhm. ñu mën koo denc xam nga hôpital am na ñoo xam ne ndeysaan Mariama dañuy gaañu lu yàgg loolu ñu gis seen mbokk. ñii accidenté nañ ñii def nañ leen dañ mën nañ ko ba dañ jël bés boo xam ne bi dañ naan ñi nga xam ne ñii gisuñ seen i mbokk tey dañ leen denc lu waay man ñëw leen ñu mm-hmm. gunge leen seen kër gu mujj nga gis ñu tegale leen nii néew yi mm-hmm. waaw ñu takk lool ñu téye leen fa lu yàgg lool duñ gis seeni mbokk soit ay étranger lañ soit yeneen ak yeneen am na lu ci lu ci lu ci kii nga gis ñu boole leen ñëpp ne tey da dañ leen di denc tey dañ leen jébal suñu borom ndax gisuñ seeni mbokk ñëw nag am ñoo xam ne ndeysaan dañoo baax dañuy ñëw ndeysaan ñoom itam mm-hmm. gunge leen ñu dem ñoom ñëpp ñu gàttal denc leen denc ni ñu dencee jullit ah loolu xam nga xam nga métti na moo tax ku faatu am mbokk mu la taxaw mhm. loolu ak sant yàlla la. Mm, sant yàlla la. Hmm? waaw mais mais est-ce que daam tamit Sénégal waroon nañ toll fii. ah maanaam néew bu décédé. Ah. ay fan gisuñu. Euh, mbokkam ay mbokk ah day am de bëri na de. Hmm. bëri na lool. bëri na lool barki de mooy njaay lañ jël benn loo boo xam ne bi hôpital lañ leen génne di leen denc waxuma la benn nit waxuma la ñaar nit. mais réew mi la réew mi waroon na toll fii. ah réew mi de moom fi mu toll xam nga noonu fu mu toll na foo foo yaakaar toll fi na fa réew <laughs> ñu ñaan balaa balaa loolu am ay ay mbokkam gis ko. baax na incha allah. ñu ngi ko tàkku lu mu bind. tàkku déedéet lu mu wax. <laughs> dal dëgg dëgg dëgg dëgg xam nga yor-yor gi gars yi dañuy wax gannaaw ñoo xam ne uh-huh. <laughs> mu yor-yor la ñu dox. wax loolu moo ko de moom moo ko bind boo man xaw ma sax tàkku. ñu ngi noonu suuf. gisal li war na ko bind. ah daam mais day laajte rek. non deful point d'interrogation de. ah mais eh, xam nga daam loolu. question la question non laaj du am. du am kii ah ni moo ko ci dugaloon mais question la rek daam méttiwul de. yow lay ci ah de yow gaaw ngaa nangu yow itam di nga naan méttiwul nag <laughs> xanaa ngaa ah, waaye yow itam gis nga tàkk foofu na li mbir. Mariama naa nu méttiwul. ah Dame dafay laajte question la kay. lii mooy àqaru jamono dëgg nag. mujj ak àddina ngi nii gars yi. xam naa Bintu laay woo. Hmm? parce ñu gisee duyo boobu rek. dañu dañu dañu am kerso maag moom mënuñoo def émission. Ah, ah, ah kon Dame yéen ñaar lu ngeen doxal kon ah, bu fa kersa waaye denc dañoo a am kersa da nga yaakaar ne fi ndool nii. ah déedéet Dame kersa bu lu na caa wut dara dana dañ waaye nag moo fi nekk. mais moom question bu Bintu ñëwoon toog suba dina ko xam non ah déet moom da day laaj rek nee day laaj kay dafay laaj. yow nga ne méttiwul. ah métti na kay. Ah. ah. mu jóg amul jàpp na dégg naa lii la de <laughs> jigéen du dañ bañ dara. tit tit tit mu ne ma sonn nga nag. daam lu bëgg a wax foofu. procureur de la république yéen kaay bi daal di. <laughs> ti ti ti nangu man mu jaaxal. en ak la ci mën di doon ne <laughs> déedéet déedéet parce que man xaw yi yow gën a am ay vues tey tey lañ lay gën a wóonal Mariam noo dema ak daam loolu lañ la njëkk a wax man ci parrainage parce que daam li ngay wax ni dafa bokkul ci émission bi ah déet kii moo laajte yow ñuy waxtaan waxu éthique déontologie yow li ci boole instant yi ci daam déet da ne gën méttiwut loolu léegi méttiwut gën yow métti na kay méttiwut kay mooy <laughs> ay donc da ngaa bëgg ma nangu. <laughs> xanaa kii mooy sa ñaareel mu ne ma méttiwul est-ce que waxu waa ji bind ko sax hmm? tàkk foofu la nuyu mbokk la de. naa bàyyi Souleymane tontul ma loolu. en tout cas mi ngi noonu yéen kay daal na ci Souleymane lu mu a tontu. wala mu wala wala wala da cee nekk décision bu mu jël engagé na non non man moom décision bu mu jël daf maa. sa relation am na ñu koy laajte de. ah xanaa ah Souleymane di daal. xeeb nga ko. ah déedéet bàyyil yi ngeen def nii. <laughs> baax na ngi noonu en tout cas yéen kaay bi daal naa ko bàyyi question moom dina ko tontu. yéen source A <laughs> source A daal ci loolu la daal di euh, xëy xëy ci li nga xam ne li moom mooy euh, néew euh, boobu lay ak fa ñu ko daal di denc yéen kaay daal na ci indiwal ay leeral wax mbaane bi nga xam ne bi ba tey kenn xamut nu mu tudd kenn gisul ay mbokkam ba mu faatoo ak léegi. lu jëm ci li nga xam ne moom mooy atep Ahmed Aïdara Déthié Fall ak Mame Diarra Fam ak ñu ñu àndoo nag yenekaay bi ne euh, ca kanam attekat yi nag euh, ñoom am na ci ñoo xam ni dañoo weddi lañ leen tuumal ne dara amu ca am na ñoo xam ne moom fa ñu teg seen tànk la ñu teg seen tànk am na ñoo xam ne ñi moom dañ doon euh, njar glace. Mm-hmm. waaw dañ doon seral. Mm-hmm. waaw boo waxee ñu ne man kay dem woon si benn manifestation dafay laa doon dem waaw Ahmed Aïdara nee na buy xëy bureau moom du du du jël oto day dox. waaw ndox boobu ko gars yi fekkee nag xam naa la gars yi na ko aha yow da ngay kii day manifester waaw mooy man dama noonu doom mooy dem sama bureau du ma en général du ma jël oto damay dox mhm. du jël sama oto waaw ak lu ci mën doon euh, daal nii la nii la nii la mbir ya demee woon gis nga ko euh, procureur nag euh, moom responsable yi Askan Wi la jàpp ne lu jig njàkk ñooy njàkk avocat yu waa Yewwi ñoom jàpp ne ku jik njàkk président Macky Sall mooy njàkk mhm. àttekat yi nag ñoom di juge ñoom ñu ngay weddi daral li nga xam ne lii moom mooy audience ba ndax météo na lool ca ndoorteel la mhm. gannaaw ay waxtu yu bëri yoo xam ne dañ ko daal di taxaw dëcee faal ne liñ koy tuumaal lépp wax dëgg fa yàlla nee na moom euh, defu ci dara. Mhm. waaw liñ koy tuumaal lépp moom nee na defu ci dara Mame Diarra Fam ne euh, bu ma génnee euh, tey tey tey bu ma génnee walla bu ma génnee suba mbir mi nga xam ne moom lay njëkk a def mooy seeti Barthélémy Diaz ndax loi bi may na ma ko. Mhm. waaw dem seeti Bart nee na loi bi may na ma ko mhm. waaw. loolu moom na leer ci kanam àttekat la ko dem waaw Ahmed moom itam euh, benn weer boo xam ne du ko du ko tëdd moom la ñu ko daal di euh, daan boole fukki junni yoo xam ni da koy joxe ni euh, wàllu ndàmpaay classement réew yi Afrique yi nga xam ne yi lay jëm na ci li nga xam ne moom mooy mbirum ni ñuy tegee loxo lii di drogue yi bu ñu sukkandiku ci ab gëstu boo xam ne onusien moo ko daal di def Sénégal mu ngi ci ñaareel place bi nekk ci gannaaw Cap-Vert leer mhm. waaw réew yi nga xam ne moom pour euh, drogue raw fi dana jafe lool mhm. ñu ngi jàpp lu bëree bëree bëri loolu nag c'est une occasion pour remercier vraiment euh, ñi nga xam ne ñoom la waxee les soldats de l'économie mooy la douane mhm. waaw la douane sénégalaise liggéey bi ñu ciy def liggéey bu am solo te duñ ci boole benn wax nag ñoom fi toll nii moom wax dëgg fa yàlla duñ ci duñ ci ci duñ ci ci boole benn wax mu ngi noonu kon euh, source a loolu la daal di xëyee niki tey waaw moom la. Saalum Faye la moom ni. ah daam daam bul tas ah sëy kilifa gi dee ko. Ah. bul tas sëy Souleymane. Ah, parce que yow yaa toog si nga xamoon naa ne bés. xam nga li ma la wax éthique éthique eh, li ngeen def du éthique du déontologie. ah daam yéen li ngeen def yow war ngaa wax ak yéen yi Souleymane. yaa Souleymane li ngeen def du éthique du déontologie. <laughs> fu ngeen fu ngeen jàngee fu ngeen jàngee nekk nekk ci rédaction di. ah di la di def li ngeen def. <laughs> non mais très sérieux et, et puis nag ça c'est pas un débat ah ba mu ñëwee ba mu ñëwee bu mu ci wax sëñ Saliou sëñ Saliou nag yow itam nag war nañ laa wax dara. daam sëñ Saliou yow war nañ laa wax dara. daam comme yow da nga koy yëgoon. yow yow léegi da nga koy yëgoon di leen bàyyi ci biir <laughs> est-ce que wax nga ko PDG Aliou Ndiaye. ah Ndiaye kañ la ma ñaata la ma toog fii gën ngir yàlla. jàppalante leen non DG DG nee na waa kay DG nee na fii mën nañu jàppalante. waaw parce que comme bëri na ay célibataire yu. ne kii nañ fi. na ci ñoo xamante ne nii pare nañ pour deuxième femme. am na si yu ñu de. de. bul tas sëy Souleymane. Souleymane moom moo war a daam. ñoo déedéet bul tas sëy Souleymane wolof la <laughs> déedéet code bi daal Souleymane moom moo la may. déedéet mën na laa may boppam. man fii Souleymane bu may jël décision bu ma fi nekkul moom bu jëlee arrangé na ma. man gis naa koy takk li jàmbur gën jël takk ko bopp takkal ko boppam de na ko bañal <laughs> bu toogee ay quelque temps ñëwaat gën na ko waaye yow kii at noonu man maa la attan. mais hmm? Souleymane moom daal moom maye ma. ay yow bàyyil yooyu. dafay daal mën hmm? ngaa toog fi naan yaa ngi Souleymane ni ngeen def. Ah, jërëjëf seen message bëri na lool nag waaye hmm. yeneen message yu laaj bi du ko mën a lire. waaw euh, bu ngeen demee page Facebook wala YouTube. Mhm. bu Africa 7 3w point Africa 7 point TV. Mhm. bu ngeen defee commentaire danaa ko gis en direct nii. Mhm. waaw yeneen message yi moom du ma du ma ko mën a gis. révélation la vraiment euh, et puis soo mën naa leen bay ngeen def yéen ñaar ah. ma observé non non non. man studio ouvert daam nee naa la pare naa si tey. déedéet bu wax bu ko waat. non daam pare naa fi bu ko waat. pare naa fi de. yow yaa mën a yaay remplace Souleymane de. non Babacar moo bëggoon loolu. waaw ah, man Maringo moo may ma toogee dafay mel ni Souleymane na. waaw léegi. Mm-hmm. yow yaay remplacé Souleymane man Maringo moo may remplacé. waaw lépp analyse politique la Maringo. mais yaa waxoon maag Maringo maag Maringo du ñaar yàlla tere <laughs> yéen ñaar kii du ngeen bokk plateau bi. da ngeen de leer laa la wax yow da ngay def casting yu baax a baax a baax waaye gis nga boo fi defee tey casting diggante Maringo ñi ak ak Maria bi nga bëgg leen ci plateau bi xam yow YouTube bi ngay ci keroog ba ñu commentaire man maa commentaire ak yow te ñun ñëpp ci kër gi lañ dëkk. non loolu moom loolu moom ñëpp xamuñu leen. Babacar loolu na li ca xewoon moom Babacar li ma la wax nii moo sama sama digganteeg Mari Ngom rek la bëgg fii ci plateau bi. loolu moom du fi amati da ngeen delloo gannaaw rajo bi ak télé bi. Ah, baax na. loolu ñaari ñaari dëkk bi ni mu toll. Hmm? ñun diaspora bi duñu mel ci ñun. moo tax kilifa yi mag dañ maa woo na ma gën ñaar ñu dee bu ngeen leen yàgg <laughs> bu ñu amee ñett fan seen télé bi fay Mhm. tam xam nga na koo bi daawul xeeñ lu neex ak ay kii affaire xam-xam la. mais nag daam loolu tamit ci la bokk de. non affaire xam-xam la ñun bi rek keroog. affaire xam la. Uh-huh. am nga yéen ñoo xam ne mais xam nga Marie day def revue de presse. boole ci français. xam nga Mariama yow borom xam-xam nga borom xam-xam te am na mm-hmm. ñoo xam ne sama am na sa morom jigéen yoo xam ne. Mm-hmm. xam nga fi mu toll bu ñu taxee nii xooluñ li ngay wax de mm-hmm. ma ngay xool nam solo. waaw nam kii ak sañse naa greffage beeg yooyu ah, au lieu nga déglu li muy wax ndax xam-xam la wala du xam-xam. ah greffage baag lii yëg am na ñoo xam ne taaru rek moo leen yóbbu ci tere. Mhm. waaye du xam-xam de. loolu am na. wax ak waxal ak ñoom. non loolu bëri na ci. ñoo xam ne taaru moo leen yóbbu ci tere waaye du xam-xam. daam loolu du ma ci sori mais loolu moom am na xam naa ci loolu. Ah, man nag cosaan moom indi si sama cosaan. Uh-huh. moom indi si télé moo la indi télé bi waaw ak waxal sàmmkat yeeg baykat yi waaw ki nekk ku nekk benn laa mos a benn bés laa ñëw mos a maquillage sama soxna gis ko gan keroog mara di taal keroog laa bay maquillage. Ah. waaw li ngeen def cap capale yooyu. waaw waaw leen déedéet. je veux être naturel koo xam ne boo gisee télé. Uh-huh. bu génnee rek naan kii du moom. Uh-huh. man nag xam naturel rek. mu kenn laal. Ah? daam naa naa la bàyyi nga kon parce que. ñu dem wax fu mu jëm du ma arrangé ñu dem yéen kay dëgg dëgg na sëñ Saliou moom li mu wax waru ko wax. comme nii da koo xam ba pare. bay ñu dem ci ñu dem ci tribune. la tribune yéene kaay tribune yéene kaay hmm, kii nag booy wax wax ji du bëgg a jàll. Uh-huh. Hmm? la tribune yéene kaay gis nga li mu xëy moom mooy euh, Bougane Gueye Dany ak ña mu àndoon ak euh, dem nañ ni ki euh, démb ca seeti siyaare yi ki xam ne mooy xalifa général des Mourides. yéen i kaay daan na ci euh, ñëwaat ñoom nag daanaka président Macky Sall lañ fa toogee woon lañ fa yóbbu woon mhm. waaw la ñu yóbbu woon ci kanam président euh, lañu ñu yóbbu woon ci kanam xalif euh, général des Mourides ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak ak wér moom Serigne Mountakha Mbacké euh, ay ñaan nag lañ doon sàkk ci moom Fadel Baro ma nga woon ca mbir ma al mun Mountakha euh, fi ñu toll nii lañuy sàkk mu daal di addu euh, mm-hmm. ci li nga xam ne mooy tolluwaay réew mi ndax rus nañu ko bu àddoo lu waay jàppoon dana ko bàyyi ngir ay waxam yéenekaay bi daal na ci ñëw ak Bougane ak Fadel Baro la ñuy wax ne président yi Sall ci boppam lu jig njaag ci jafe-jafe réew mi mooy njaag moo mm-hmm. taxit dañoo war a wax ak moom mm-hmm. ay kaddu Bougane Gueye. kaddu Bougane Gueye dañu. Euh, Déthié Fall Mame Diarra Fam ak Ahmed Aïdara ñibbi nañ seen kër ni ki euh, démb mujj nañ leen teg teggi yoxo donte ne sax nag daan nañ leen ay weer yoo xam ne yi duñu ko daal di euh, tëdd Mame Diarra Fam ak ñi ma àndoon ak moom dañ leen a seetal wecc toppeetuñ leen dara. Mhm. waaw. coalition républicaine sàmm suñu réew. Mhm. nee na nañu sàmm suñu réew mi. Mhm. ndax ñu ngi ci jamonoy examen. Mhm. te examen àndut ak ay ñaxtu fii ay ñaxtu fële dañ leen di perturber xale yi. waaw nee nañu bay xale yi ñu ñu def seen examen. ñu mën a am xel mu suñu réew waaw mën a am xel mu dal. mën a jàng waaw. loolu am na solo. Euh, Wade Pape nee na mi ngi ñuy euh, yaa Espagne. ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp. waaw delloo Mariama nee na maa ngi nuyu Mariama daf ah nee na Mariama dafa ah, dafa daa daa jeté ay fleur. merci beaucoup gis nga lii de au lieu xool li ngay wax ñu naan dafa <laughs> ñu ngi koy nuyu depuis Espagne. touche du bois. <laughs> ci laa toog daal. <laughs> ah touché ko ko de kon. Babacar. damay ca. ma ne ko tous di bois mu ne ci bois la toog. non Souleymane suba dina ñëwaat ci studio. docteur euh, Thierno Thioune. Mhm. docteur Thierno euh, Thioune ci lu jëm ci li nga xam ne lii moom mooy euh, teewaayu njiitu réew mi fële ci sommet bu G7. mi ngi mhm. xëy di ko daal di jàngat ne moom bokkul ci ñi nga xam ne ñii dañoo jàpp ne daal dañoo war a taxaw fële di xaxar rek. Mhm. ci tous ya te bañ a dugg mooy xam nga loolu mooy politique chaise vide. waaw léeg-léeg bu ñu la wooyee. ma dem. damay taxaw fi ma taxaw rek léeg bu ñu la waxee jaay jaay jël poste bi nga ne day rëbb. nga ne mu ne loolu nag muy politique siège vide mhm. te loolu nag waruñu koo def moo tax nee na président Macky Sall dem ga mu dem bokk ci euh, sommet bu G7 moom nee loolu euh, da ko daal di euh, rafetlu waaw ma Sénégal tamit lu ne dañ koy dañ koy ñaawlu waaw ah, waaw lu day fi mu toll nii mhm. mu ngi noonu kon kon yéenekaay bi di la tribune Euh, kon ci lii la dal di euh, xëy euh, ba noppi tamit nag daal di xëy ci lu jëm ci juróom-ñaari sages yu conseil constitutionnel. Mm-hmm. ñoom itam xam nga ils ont du pain sur la planche. Mm-hmm. Hmm? waaw seen taxawaay seen nekkin seen liggéey. yéenekaay bi daal dinay xëy di ko li nga xam ne li moom mooy askani coordonnateur bu convergence des cadres mm-hmm. républicains bu Yoff Euh, mi ngi ñëwaat euh, ci liggéey bu yees docteur Amadou Ndiaye. Mhm. liggéey bu yees bi nga xam ne bii moom la ñu ko daal di euh, dénk li ma leen defal nii benn yéenekaay du leen ko defal de. Mhm. xam nga fi mu doon ma neexoon fi mu fii rek laa yem rek ci ala une bi rek. ala une bi waaw waaye am ndeysaan am ñoo xam ne. mooy borom xam-xam lañu dañoo nekk ci biir yéenekaay bi. Mhm. faaw nga génn ah boo leen ci revue de presse bi. ndax ñu xam lu ñu wax ah mi ngi nii ah kon yéenekaay futti naa ko. Hmm. fëti nga ko moom set. waaw. Mm. ñu dem. ayca. nee na Mariam laa faral. Modou Sandaga Modou Guèye. Mm-hmm. Sandaga ñu ngi koy nuyu di ko ziar. Mm-hmm. benn wërale bu nekk fële ci Sandaga waaw. ñu ngi koy nuyu. waaw yëpp xam nga waa jamono ji ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy déglu baax baax à travers 90 point 7 sax mm-hmm. ñoom parce que xam nga boo gisee ñu synchroniser rajo bi ak télé bi day am koo xam ne ma nga ca waar wa te bu sañoon day jël ay écouteur dugal ci ay ay ay noppam ngir mën a ngir mën a déglu hmm? waaw waaw jërëjëf. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. ñu euh, dem ci observateur yéen kaay observateur waaw observateur yéen kaay Babacar ñëw ci observateur observateur tey daf ne Amadou Ba génn ca tekkaaral ga mu nekkoon ngir addu ci lu jëm ci li nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi. Euh, moom fi nekkoon ministre des affaires étrangères. Mhm. nekk coordonnateur euh, li nga xam ne lii moom mooy euh, ci élection yu ñu génn ca législative yi bu benn bokk yaakaar ci wàllu campagne bi loolu yéen a kaay bi daal di ñëwaat ci moom Amadou Ba ni mu daal di jàngatee li nga xam ne lii moom mooy manifeste yi nga xam ne opposition bi mu ngi koy daal di def fa nee na waa Yewwi dañuy chantage gaa yi. Mhm. waaw. moom moo wax loolu Amadou Ba waaw Amadou koy bu waxee wax waaw waaw daal. yewi ak euh, di sëkkatal gars yi di leen mettre la pression. Mhm. Euh, ba njuumte yi ñuy def ñu dellu ci gannaaw nee loolu lañ bëgg waaye te loolu nañ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg amul ba mooy wax de. Mm-hmm. waaw amul dafa jàpp ne ba tey yoon mi ngi doxal liggéey. waaw ah? yoon mi ngi am moom jàpp nañu. ah en tout cas daal li mu waxagum daal ca kaw loolu la wax. Mm-hmm. ba noppi tamit ne mi ngi euh, wax dëgg yàlla ñaawlu ñi nga xam ne ñàkkoon seen bakkan euh, ci euh, manifeste yi nga xam ne yii moom la ñu daal di génn. Mm-hmm. ndax nee na na lool démocratie nag nee na mooy liberté waaye liberté boo xam ne bi da ngay sàmmonteeg li nga xam ne li moom mooy yoon. mooy li nga xam ne lii moom lañu ñu war a def. liberté démocratie nee na mooy liberté waaye liberté boo xam ne da ngay sàmmonteeg li nga xam ne mooy suñu loi réew mi. Mhm. Hmm? bàyyi xel dogal yi cay tukkee. voilà loolu na bokk na ci li nga xam ne lii moom la daal di euh, wax euh, ne daal fi ñu euh, toll nii daanaka bu ñu xool opposition bu Sénégal seeni i coow moo ëpp li nga xam ne lii moom mooy seen i jëf ndax bu ñu xool nee na opposition bi lu ci mel ni waa Yewwi li ñu bëgg rek mooy wax ba nit ñi fàttali président Macky Sall waaye nag nee na fi mu toll nii mbele mbele coow la. Mhm. am na li président Macky liggéey mi ngi fiy tege Amadou Ba mooy wax de waaw. borom parcelle Amadou Ba mu falee ci APR. waaw falee ci APR. dañ ko ministre ànd ak Macky Sall. président Macky waaw. jar na ci di leeral de. Mhm. Hmm? waaw chauffeur clando bi moom li mu def baax na. ñu dikk ci li mu def. liir ko. <laughs> Ah, daam yow fii yow la ñu ah, doxalee de yow ko xamu concept mais waaw d'accord mais yow xamu déedéet mais parfois dama wax lii ko man laa koy lii ko ci français yi dégg mais naa naa la nañ lii ko français ma lii maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax Modou Ngom gaa yi nekk ci www.africa7.tv gaa yi nga faram fàcceel leen lu chauffeur de chauffeur bi lu mu def noonu. le chauffeur de clando couché avec la mineure contre des pièces de monnaie. ah mooy la mooy la ah. déggoo wolof. ah daam doo faram fàcce lii ñiy déglu téléspectateur. déggoo wolof nii. <laughs> ci France bu ko lii. voilà. du ma man waxoon naa du bay na kii fait ah, divers. daam yow yaa ngi. fait divers laa ba. yaa ngi salfaane charte yi. Ahmed Thiam ñaar fukki at ak ñett la am te ko liir naa ko di. Ah, ah. mais ci français nga ko wax di. Hmm? ci français. gars yi dégguñu li nga wax de. dégguñu tubaab. Hmm, gars yi dégguñu tubaab. ma yaakaar nag ma kii bi ma wax ko. non ñu dem ci rek comme da ngay faram fàcce rek na lépp leer. non li naa ko dafa sori sax fi nekk. Ah. ñu jàll. ñu jàll. Hmm. ayca. <laughs> yéen i daal ñu euh, ñëwaat euh, ci euh, Maguette am ñaar fukki at ak ñett la daal di am moom ab étudiant la bokk ci Pastef mi ñu moom mooy ki ñu agressé woon fële ci université Anta Diop bu dakaar mhm. ah, mhm. waaw moom na mi ngi xëy nee na juróom-ñetti paaka lañ ko bojj. Hmm? Mhm. waaw waaw juróom-benn yëpp ci tànk bi la. ci lupp bi waaw beneen bi ci loxo bi. Hmm. waaw loxo càmm bi beneen bi ci mbagg bi. muy juróom-ñett. waaw mi mi ngi mi ngi dund. waaw mi ngi dund. Mhm. waaw te neen fi mu toll nii nag euh, euh, Pastef la nekk naam. Mhm. waaye dafa am loo xam ne dafa dox ci diggante mook directeur bu COUD di magasin. waaw magasin dégg naa ko mu génn di wax na mu ne. Mhm. kii seen ak njaboot ñoom ñëpp dama leen a xam. waaw mais dafa am loo xam ne dafa dox sama diggante ak magasin. moom étudiant bi waaw ci wàllu dem dem te dikki sama waajur ak ak moom. waaw waaye daal. ci wàllum ñàkk déggoo. déedéet ci déggoo ci déggoo. maanaam seen i waajur waaw xam nga passif la bokk. Mhm. waaw lii nag moo tax wax dëgg yàlla nag ah moo tax politique ñu war ko yemale ci politique rek. Mhm. ndax ñi ñëpp ay mbokk lañ. ñu war a xoolaat seen doxalin hmm? aussi. ñëpp ay mbokk lañ. Mhm. Hmm? Euh, mi ngi noonu ñu dem. waaw mais man daam ba tey dikkaguma gisaguma nga ñëw ci ci ci ci cas divorce yi. ay waay ah cas. cas de divorce yu ñuy wax. mais est-ce que loolu am 300. 45. par jour. je pense yow kon dëkk bi ñëppay tas. ah man moo ma jaaxal. mais loolu tamit daam mas nañ def mas nañ def. gaa yi indiwaat indiwaat indiwaat ay rectification exactement. c'est ça mais 345 divorces par jour. Mhm. bés buy am Sénégal léegi ñëpp tas. moo ma jaaxal. loolu mënut a mais quand gis naa depuis démb léegi gaa ciy wax. non loolu mënut a ne. gaa ciy wax. par an par par jour bi par par jour j'ai mhm. gis naa par jour mais ñetti téeméer ak fukk ak juróom. ay tas ay sëy yu tas par par bés bés bu jot mais loolu loolu loolu mënta nekk kon dëkk bi ñëpp léegi ñëpp tas tam ah, na waar waaw ah, am na ñoo xam ne duñ tas mukk ah, ah déedéet tas mhm. yàlla tere am na ñoo xam ne xamuñ luy loolu sax ñu ngi fëgg seen nopp sax fi mu toll nii moo koy wax nii waaw mhm. man sama soxna du tas mukk macha allah hmm? mukk maa koy topp bu dee moom bu waxoon sax dafa médecin man léegi ma kii ko yooyu denc dañuy war a ñàkkante jom seen diggante. waaw waaye bu ñu jaay nguur a gën kenn ku ne jaay gën a rëy sa morom rek. loolu du du du sotti. waaw du sotti ma doomu ni jaay la. en doy na xëy foofu ma neng nengal ko. ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax hmm? mais mbaa mi ngi waajal kii bi. kan si. ak ji ko war a fekk si. loolu kañ la. ah da nga. ñu dem Babacar ah daaw. <laughs> ah daaw mu ne xam nga wax nga tey ngay pare si kii waaye yow tey laay pare wax nga ne tey tey ngay pare ci émission bi waaye tey laay pare pour defa yow émission <laughs> ndax man damaa nekk mag muskàllaf laa. da ngaa dellu gannaaw. muskàllaf laa. maa ngi bëggoon suba sax bintu. libération libération yéenekaay. ah daam de xamatuma sa yëf daal euh, libération yéenekaay si libération yéenekaay waxtu bi dafa jot. rakk ji ko bàyyi. libération yéenekaay. ah xàmmeetuma la de. waaw bu ma xàmmee. ndeketale nii lay def de. waaw dëgg la kay. loo xam noonu la. télé nii lay def. waaw ñi doon wax naan nekk Sadio Mané moo leen gënal nekk nekk ay imam. ok loolu naa ci wax moom. ah ñu jàll ci libération ah déet loolu mën naa gaay gaay gi mun dafa doy waar. gaay gi de Mass de ko waaye ñu doon wax naan ñoom. ñi ngi ci Mass Babacar Souleymane. Baba Thiam. waaw mooy Baba Thiam moom laay Baba Baba Thiam. ñoom ñett ñoo taxaw ne boo leen tegoon na nekk imam nga loolu ngeen nekk Sadio Mané lu ngeen di jël ñu nekk. Sadio Mané man maa maa leen dégg. war nañ ko wax. est tamit du ataaya bi parce que mm. ne ataaya bi. waaw ataaya ji de man de ma kii xam nga gars yi bu ataaya dañuy kontaan. dañuy wax waaye tamit ñii ñi nga xam ne dañu doon a jël. Mm. lay. deuxième euh, a kaay. Ah, a kaay. maanaam du ñu naan libération ah, mooy Mariama nag lii nag lii nag sa émission la ah wax ko ndax la neex boo posé question boo paree pare nga bi. daam xameetuma la ah. <clears throat> Abdou Ndiaye lay ziar bu baax depuis euh, Ndiéñen Lagan. Mhm. waaw Ndiéñen Lagan Abdou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziar Pape Wade. Hmm? ñooñu suñuy internet la yoo xam ne ñu ngi ci www.africa7.tv. lii la mhm. bëgg bëgg a tiiñal Mariama moo tax ak Mariama moo tax ngeen def seen commentaire yu bëri yi ah yéen tam nag bàyyi leen yii. kon daal daam xàmmeetuma la. man ko bàyyi leen yii. dëgg dëgg xàmmeetuma la daam. ñu dem libération yéenekaay dama ciy nekk ak yow. <coughs> libération yi. maag moom boo ko bëggut wax lu mu bëggut wax du ko wax libération yéen kaay Caaroy sur mer la xëy Caaroy sur mer mm-hmm. li ma doon bañ observateur dinaa ko fekkaat fii nag mm-hmm. waaw Caaroy sur mer xale boo xam ne bii fukki euh, at ak ñeent la daal di am mm-hmm. daanaka euh, maama moo ko defoon soxnaam rek xam nga ne lii benn fukki at ak papam sax la juróom benn fukki at ak euh, juróom lii jàmm nga yaakaar wér la Mm-hmm. soixante cinq ans. Mm-hmm. la papam am. maa te li ci gën a doy waar mooy fi mu toll nii non am na loo xam ne sax ñu ngi jégalu parce que wax ko rafetul. wax ju hmm? wallaahi. waaw rafetul de. waaw moom ak moom ak ab jarbaatam daal ñoo ci nekk. Mm-hmm. waaw li doy na waar. je fi mu toll nii boo muy mbokk yi dañ dañ ko bëgg a nës nësal xam naa nag ah bu ko nëbbu si si mais est kii wér na soixante cinq ans. xale bi ay atam toll hmm? ci. quatorze ans. quatorze ans loolu tamit ñaaw na hmm? waaw. ñu noonu en tout cas daal euh, depuis bi muy am 12 euh, ans ba tey la euh, yennikaay bi daal di ñëw ne daal fi mu toll nii bàyyam ji di bee sant gay moom daanaka sax bu ko doon daal di def da ci boole di ko filmer. moom moo daan génne euh, ay film film film yu bon yi la daa génn taxaw gan ñu koy seetaan. laataa muy sekk xale bi. waaw ñu koy seetaan yëpp. yaayam toog de mu koy seetaan ak moom. naar di Itaali. ok waaw. loolu fu mu xewee noonu. Thiaroye Thiaroye sur Mer. Mm-hmm. doone waar Barça wala Barsaq ñu yaakaaroon ne jeex na jeexagul yéenekaay bi ne li xew barki boo Ndiaye fa diggaloo diggante Maroc ak Espagne doy na waar ba yegg ca lool yéenekaay daal na ci ñëwaat ak ak euh, fële nga xam ne fii moom mooy diwaan bu euh, Kafountine yéenekaay bi daal di ñëw ak ñi nga xam ne ñu ngi fay jaare ñoom itam ngir euh, dem Espagne. Euh, am ku ñàkk euh, bakkanam fukk yoo xam ne ñoom gaañ-gaañ yu euh, yemamaay ci ñi bëggoon a daal di dem am na si ñoo xam ne dañ ne mër ba tey kenn tegu leen ay gëtt Ahmed ay dara ak ki nga xam ne kii moom mooy Maam Jaara Fam ak Déthié mu mujj lañ leen bay ñibbi nañ seen kër ni ki démb gii mari Sagna ak ña mu ànd ak ñoom tey la war a taxaw ci kanam àtteekat bi fële ca diwaan bu Ziguinchor boo vérifié sax xanaa war nañ caa xam dara mhm. <clears throat> fu yëf yi toll. waaw fu yëf tool ndax ñu ndax ñu ngi koy déglu wala euh, Moussa Ndaw mag ñu fa nekkal. Mm-hmm. Euh, en tout cas ak lu ci mën doon lu ne daal euh, mi ngi euh, noonu mbirum digitalisation ci wàllu service DGE ak plateforme bi nga xam ne daal na koy teg loolu bi daal dina cee ñëw Omar mooy jëriñ ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu collectivité territoriale ak développement aménagement des territoires état civil bu leer nañ la bëgg a daal di teg ngir li ñu daal di bëgg jëm ci wàllu développement durable ñu mën koo daal di am gone gu juddu am kayitu juddu bu ko defee ñëpp mën a am ay. Keita loolu lay yéenekaay bi daal na ci euh, xëy Maroc la fa xew yéenekaay bi daal na ci euh, ñëw ne ay doomu réewi Afrique subsaharienne lañu euh, ñoom ci seen bopp nag ñoom ñoo daal di tëddee nii de di nataal bu ñaaw lool. tax ba mbootaayu xeet yi ñoom ne dañoo war a sàmmonteeg li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi waaw ñu <coughs> noonu. Mm. ñoo ngi koy déglu loolu dégloo gu ñu. ñi ngi ci ñi ngi ci audience bi. ñi ngi ci audience bi nii. Mm-hmm. kon ñu ngi noonu. transfert monétaire euh, mooy euh, xam nga ñeent fukk ak ñetti milliards. Mhm. yi ñu doon wax ne la ñuy jox ñi nga xam ne seen yoxo jotul seen digg gannaaw. Mhm. Euh, kenn ku nekk war a am lu toll ci quatre-vingt mille francs. bërki Dembo Ndiaye nag fële ca Pikine waaw waaw waaw waaw bërki Dembo Ndiaye nag fële ca pikin la ñu la ñu demoon département bu Pikine la demoon ministre Samba Ndiobène Ka ak Abdoulaye Seydou Sow ñoom ñoo àndoon yóbbu ndimbal loolu li nga xam ne lu ëpp deux virgule deux milliards. la ñu yóbbu woon jagleel ko lu daal di ëpp euh, ñaari euh, junni ak euh, wala sax lu toll ci ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom-ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer fukk ak ñeent ci ay njaboot Kaffrine tamit ñoom itam jot nañu li nga xam ne lii moom mooy seen wàll yenekaay bi ne mbir moom ma ngay daal di wéy Omar Sané mooy directeur de l'agriculture mm. moom itam ma ngay wax ci li nga xam ne mooy bale ba fi ñu mën a sukkandiku ba Sénégal am blé boo xam ne bii léegi Russie ak Ukraine bu ñu xeexee tamit suñu yoon du ci nekk. du am gàllankoor ndax euh, du ñu indi benn gàllankoor ci li nga xam ne moom mooy blé bi loolu mooy débat bi. Mhm. Hmm? Hmm? am indépendance. bu wàllum wàllum bay dundee. voilà. Mhm. comme mënuñu xam nga dafa am ñaari baat mm-hmm. li ñuy wax souveraineté sécurité alimentaire ak souveraineté alimentaire mm-hmm. sécurité alimentaire mooy nga fexe ba sam réew nga mën koo bay loo xam ne da mm-hmm. ba di ko ko ah. a a fi mu a def moom ku mën a indi loolu war nañ laa woteel. dund bi yokku na torop. lool. waaw loolu am na koo xam ne fi mu doon jox nañ ko juróomi téeméer wala ñeenti téeméer juróom-benn téeméer ma nga ca marché ba fi mu doon amul lu mu jënd. wallaahi. ah wallaahi. ah. mais ñu ñu ci bay dundee ba. bay bay bi dafa am solo lool. Hmm. waaw. mbay mi dafa solo foog kaa kaa yi demee nii. waaw nañ ci jël ay ay ay leçons. waay. voilà waaw. ci la bokk. Hmm. am na solo. wallaahi jërëjëf Mor Mor Mbaye du lépp laa mën a tontu. na li may laaj lépp lu tax léegi fi mu toll nii may sëgg yenn question yi xanaa nekkatuma daam <laughs> nekkatoo daam ba <laughs> ñu dem. ah waa ah, mhm. <laughs> ginnaaw libération yu nekk ay Babacar ñu ñëw ci laas. Mhm. Mhm. ñu ñëw ci laas waaw. L'As quotidien li mu xëy mooy xëy dem fi nga xam ne fii euh, moom mooy euh, diggante Maroc ak Sénégal euh, Maroc ak Espagne mooy fi nga xam ne fii ay doomu Sénégal wala ay doomu réew yu Afrique yoo xam ne dañ leen faa daal di fekk am ñoo xëy dañoo daal di ñàkk seen bakkan dañoo bëggoon a bëtt frontière frontière ba ngir dugg Espagne yéen kaay bi nag loolu nag alkaati yi bañal leen ko ñoom itam daal leen euh, gaar leen mm, ñuy euh, mbasante ñoom ba daanaka la fay xew xew fa euh, ay grenade lacrymogène daal di fay jóg am ñu ci fatt am ñu ci daal di ñàkk seen bakkan mhm. loolu yëpp yéen kaay bi daal na ci ñëw ak lu jëm ci député bi di Mame Diarra Fam ak Déthié Fall ñoom mujj nañ leen bay ni ki démb waaye nag ñu ngi leen di wéy di leen may gëtt yoon noppeegul ci ñoom waaw Euh, Karim euh, Fofana mi nga xam ne mii mooy euh, daanaka moom nee na lii bëgg-bëggam mooy fexe ba ndakaaru te wala benn bokk yaakaar. Mhm. teg loxoom ci ndakaaru ci élection législative waaw. waaw Abdou Karim Fofana waaw mu ngi noonu. ñi ñàkk seen bakkan ci frontière yéen i kaay bi daal na ci ñëwaat ci nataal yu euh, doy waar euh, lool loolu yéen i kaay bi daal na ci ñëwaat sommet bu G7 euh, ca Allemagne yéen i bi daal na ñëw ca dëgg yu xat yi nga xam ni président Macky sàll wax na ko Joe Biden ak ñi mu ànd ak. Mm-hmm. waaw. dëgg dafa war a weex de wala. waaw dëgg du neex. ay loolu nag ay waxi wolof la rek. mu bañ a am trajectoire. jaar ci digg bi. dëgg moom dafa war a neex. Mhm. lu wax dëgg da laa war a neex. Mhm. dëgg du neex loolu waxi wolof la waaw. mi ngi noonu mbaa dëgg kaani la. waaw dëgg kaani la kooko tuñ kooko too kooko tuuf mu taxoñ. mu taxoñ. neexut a dégg nag wax ju yàgg gi noonu nag. Hmm? ma ne ko ci neexut a dégg nag. bac technique 2022 euh, lu ëpp euh, ñetti junni ci ay candidats ñoo ko war a jomante. Mhm. bac technique. lépp ñetti junni ñoo ko war a joŋante waaw mu ngi noonu. waaw. ci fukk ak euh, juróom euh, benn ci ay jury euh, juróom yi ñu ngi ci diwaan bu Ndakaaru ñaare ñu ngi ci diggante Pikine ak Géejawaay. Mhm. Hmm, loolu de moom da ngay wax rek Mor Mbaye hmm. nee moom même bu Souleymane ñëwee fee ñàkk. Ibrahima Dieng euh, ñu ngi lay nuyu yëpp di la ziar bu baax. a Dieng mais man maa bàyyi studio ouvert sax. Ibrahima Dieng ah. man maa bàyyi studio ouvert fii oh fii léegi oh ma mari daal. man ngaa toog fële ñu ñu bàyyi leen yow ak Souleymane rek ci kàttanu suñu borom. toogoo fii ne yaa ngi regretté gan di poser question naan man kay ni ñu ba am ñaari kii damaa jaaxal. ñaari la. ñaari fii <laughs> nga koy jiiñante ak Marie euh, nga koy jiiñante ak Marie Ngom keroog non ni koy daam di defee lañ ko waroon a defee. ni koy Souleymane di defee xam nga xam nga xam nga lu ñuy wax. Ah, bi ngeen génne naan kii kii kii naan nga xam nga njëlbeen moo yombul. Hmm. njëlbeen ah, moo ngeen war a dem retraite journaliste yu ngeen di. maa nga. ah yéen kay yàgg ngeen. ah kon ñaar Souleymane fi ngeen bokk. ñun ah, moo tax ñu ngi toog ba tey de. Hmm? <laughs> maa ngi may xale lañ dara kii dara. Hmm? mag de kenn bëgg koo doon. <laughs> loolu yàlla dogal moom fi mu doon daal euh, mu ngi noonu waaye bi ngeen génnee daal kenn ku ne ngi tuumal moroom nag waaye nii la waroon def da nga waroon def nii lay man ma def nii kii euh, ñaari vues seen naataango naataango yi ma ne <laughs> moom bëgg ngeen nekk groupe whatsapp bi ngeen nekk yëpp ak journaliste yi. Ah. li après da koy dag nga dugal ko foofu. ah loo bëgg a wax dama bëgg déclaration. ban déclaration groupe whatsapp. Hmm. yi nga xam ni euh, xam nga Mariam dafa réseauté moom <laughs> loolu yàlla ak ko defal. groupe yi mu bokk di leen laaj ay numéro téléphone léeg-léeg bokk ci yéen kii def na fi émission moom Marie Ngom <laughs> am ñaari commentaire boole kook ñaari vues ñaari commentaires yi man ci kër gi Africa 7 laa nekk man maa commentaire Serigne Saliou Faye si kër gi la nekk moo def commentaire mooy ñaari commentaire te bi may def commentaire damaa toog lu yàgg lool gis ko commentaire ma ne lii du ma ko seetaan le 8 mars la woon moo tax. non daam xam nga wi wi mars bi doy na sëkk ci yéen wi mars bi dañ doon xeex. doy na sëkk ci yéen. mais wi mars bi dañ doon xeex. non doy na ku leen xeex. xam na ne waru doon demee noonu. def émission man ma toog def sama chef pour def émission ñuy am deux vues. daal taar ngeen fi doon jaay gis nañ seen ab taar mais loolu mais loolu c'est pas naturel ñi seetaan nañ ñi yi jaarul la mais yàlla baax na xam naa ne beneen yoon maag Marie bu ñu fi toogee moom PDG keroog ak am lu ko métti. <laughs> DG moo la gën a comprendre na message ne ko ñii bu ñu ñëwati. kan Aliou Ndiaye. ah nu ma wàcc mooy félicité. moom it dal. Aliou Ndiaye ma wàcc mooy félicité. loolu de xanaa ay kii la ñëw de. ah déedéet loolu moom hmm? loolu DG deful loolu. en tout cas daal. ma wàcc mu naan ma studio ouvert dafa war a am ñu mel ni yéen. waaw léegi man nan laa nan laa nekkee direct def émission ñu may maa ngi lay déglu wala nan laa mën a décrocher laa wax man Euh, nan lay nekkee di def émission direct sëñ bi nu may woo téléphone nu may nu may def bay wuyu man laa xam moom day décroché moom ah bu nag ñu woyal ba ñu pare salaamaaleykum <laughs> waa sëñ bi nan lay nekkee direct di def émission nga may woo ah. walla awari moo jaaraamu ne feewi soo pullo a jaaraama a jaaraama Sow wallahi jaaraama Sow Sow Sow a waɗi a waɗi ko moƴƴi Sow a waɗi ko moƴƴi Sow wallahi goonga Sow Sow Sow na si daam xam nga ni lii bu doon Souley Souleymane du ko nangu de. ah waaw déet non lii c'est naturel. nit bu lay daam daam analyse analyse daam bi ngay def ci studio ouvert. parce que nekk fi tey non Souleymane wuy kii kii day wuy message loolu na ko lay def. analyse yooyu yëpp da ngeen koy def fii xam mu naturel da nga ne doon jaay day wuyu. ah kii ak ah, Ah, Aliou Ndiaye moom xam nga moom PDG moom kenn hmm? mënula ko dara moom waaw ngi noonu en daal yéen i kaay na ci euh, ñëw ak euh, ñi kon ñàkk seen bakkan diggante Maroc ak euh, Espagne ci frontière ba Union africaine yëkkati nañ seen kaddu di daal di ñaawlu li ni mel daanaka lu mu néew néew fanweer ak juróom-ñaar ci doomu aadama ñàkk nañ sa seen bakkan mm-hmm. fi ñu toll nii lay am ñoo xam ne ñi am nañ ci ay gaañu gaañu ña ca des ña nga tëdd ca suuf sa loolu lépp yéen i kaay moom mooy euh, Milia daanaka am massacre la boo xam ne bi lay daanaka ay ndawi Afrique la ñu ne ba ñu mhm. ñàkk seen bakkan mhm. waaw doona waar lool waaw sànq maa ngi gis Kémi Seba waaw mu ne nañu boycotté eh, kii bi Air Maroc ah parce mu nee jàpp ne ni ñoom ñoo ko ñoo nekk ci ginnaaw. waaw bokk na ci xeex bi de. en tout cas daal xam naa ne daal euh, moom moom pan africaniste la. waaw waaw mhm. nga bokkoon nañ nekkoon nañ convergence mag moom. kémi war naa defal ay chronique waaw mos naa gis seen benn photo. waaw liggéey nañu Convergence FM 2013 2014. borom xam-xam mu doon def ay chroniques yu baax ay émissions yu am solo. Mm-hmm. waaw mi ngi noonu kon ñu daanalee Mariama wàllu tàggat yaram. Mm-hmm. Euh, stade yéen kaay ñu daanalee stade stade yéen waaw stade yéen kaay ñu noonu. ayca stade yéen kay li mu euh, xëyee mooy Ibrahima Traoré moom euh, ancien bu euh, Bundesliga la moom nag ak bu Chili mu ngay xëy ne Sadio Mané dem ga mu daal di dem ca Bayern. Mhm. lu am solo la ci équipe bu Sénégal. Mhm. waaw nee lu am solo la ci équipe bu Sénégal loolu nag ñiy seetaan football nañ ko jàngat waaw. waaw waaw ndax fi mu moom prochain. ballon d'or bii ñëw moom. Mm. wax dëgg fa yàlla moom mooy favori bi Sadio Mané mooy favori. Sadio Mané waaw ndax dem gi dem fii si Bayern tamit am na leen nu mu ko mën a yokkal. borom numéro 17. xam naa xam naa loolu maa la ko yëgal. mujj koo jox 10 ba. maa la ko yëgal loolu. non man góobu ko woon sax 10 laa yaakaar lañ koy jox. non foofu mi ngi mi ngi numéro 17. waaw da koy topp. mi ngi numéro 17. da nga koy topp. waaw moom fierté la Sadio Mané. Ah, waaw da koy topp mu ngi noonu Euh, Bintu Rasul Koli mi ngay jege moo tax mu jàngale yenn yi man tam xam ñoom Souleymane yi moom ay ñoom euh, Moussa Fall faw nga faw ngay bay xel wàllu football bi Edouard euh, mindi moom itam mënoon naa gagné li nga xam ne li moom mooy deux mille vingt et un ballon bi yéen kay daan na ci ñëwaat. ak lu daal di jëm ca Angleterre ak Sadio Mané génn ba mu fa daal génn. ak euh, beneen taxawaay boo xam ne bii daal nañ koy euh, amaat euh, ñoom itam loolu la yéen kaay daal na ci xëy Seydou Sané. Mhm. mooy njiital Casa Sport moom itam daal nay ñëwaat ci Casa ak ni mu daal di jëlee ligue bi seen budget nag daanaka fi ñu toll nii jege na ñetti téeméeri millions mhm. hmm? waaw am nañ xaalis xaalis de Seydou Sané. nañ ca politique ba ma ca football ba. Mhm. président Casa Sport. waaw dañ ko dóor si élection yi ñu génn. waaw dafa bokkoon ci ci kii. ci candidat yi waaw mu nekkoon candidat président Macky Sall. ok ci conseil départemental bi. Mhm. mu ngi noonu. mu lajj foofu waaye fii jël na fi ndam. waaw fii de moom jël na fi ndam. Mhm. waaw moo tax na fi mu toll nag euh, l'albatros euh, li wax picc lu picc bu nekkee ci kaw day rafet waaye bés bu wàccee rek ñaaw. waaw nit ku ne ak terrain boo nekkee sa terrain waaw ku nekk fa nga mënee. c'est ça jërëjëf. mais mais daam football bi. waaw. Ah. lu tax gisuñu waa Africa set ci kii bi. Ah, loolu nag métti ma lool. loolu man daam. non non non daam loolu man man la gën a métti. les principaux responsables xam nga mooy kan mooy Madiagne ak Baba Niang Baba Thiam. waaw ñoom ñoo yor desk sport bi fii. Madiagne yow daam loolu loolu métti na ma waxoon nañ leen ko waxoon naa waxoon nañ leen ko Souleymane ñun ñu toog ñu wax et puis xooloo bi dem. final mais parce que man. sama confrère dañ dama ne ma noo yéen Africa 7 da ngeen noppal seen bopp parce que ba ñu xoolee ba xool amoo leen joueur. non. lii lañ man man confrère la man benn bennal ko. ma wax ay jaar jaaram léegi. waa ITV loolu lañ ma wax. waaye waa ITV yan. waa 2S loolu lañ ma wax. non non non non non ñoom ñoo amuñu ay joueur. gis nga sama xarit dama xam ne gis nga final bi est-ce que weesuwul. weesu na. dimanche non non est-ce que weesu na samedi invité woon na mais dama ko fàtte. est-ce que est-ce que weesu na. yaakaar naa des euh, des médias. xaw ma ak kan daal moo demoon final daal xaw ma. daam loolu itam dafa doon euh, non Dakar TV. ñu xool Dakar TV nga xam ne koo jàpp ndulli ko ndulli métti fii. ah waa Africa 7 dañu koo jàpp dur dur yu métti fii. kan moo dugaloon ba de de man. ci Dakar TV loolu la bii ah, bi. Ah, na ku ma ne waa di waxtaan ak koo xam di waxtaan ak koo xam ne kii. am hmm? na ko ma ne Africa 7 mu amuñu joueur. Euh, ma ne ko mais boo xoolee daam. Madiagne ñaa xëy na Souleymane. Souleymane day football lu leer la day football moom mën na football. Madiagne moom mën na. Madiagne mën na football Baba mën na football. Mhm. ah man mën naa koy wax mhm. ah, ma ah, Maas. Mhm. mën na football kenn wérantewu ko. waaw Oustaz. wax mën na ñaari Oustaz. waaw waaw waaw ah? waaw mën na football. tonton Moussa Fall loo ko ciy génne. keroog dafa solo gën ba ñëw gën kii yow dafa Moussa ñu dañ laa soxla ci leneen. juróom fukki at ku ko def da ku ko am da ngay war a moytu da war a moytu fo. Mohamed Touré. Mohamed Touré dafa ñëwoon doon filme xam naa man man du ñàkk war na mën a football. freestyle Rashi ñëwoon na mën na football Babacar mii sax mën na football. Babacar Niang waaw mën na football. mën a football xëy na la nekkoon moom nekkatu ci rek. Mhm. pourtant am ngeen ay moom wax dëgg yàlla ah. pourtant am ngeen ay joueur. non non la nekkoon ci nekkatu ci. Mohamed Touré footballul. ah moom non footballul ah. ak euh, ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mm-hmm. xam nga loolu sax parce que rajo bi kii télé bi jëluma ko Pa Omar ñoom mm-hmm. ñoom ñëpp dañoo mën a football Youssou Youssou Guèye waaw Mohamed mm-hmm. mu sol moom itam ñëw caw hmm? gars yi gën a jekk ab ah, ma la wax de gis nga gars yi teere ku la fa gën a jekk ab équipement moo la gën a ñàkk xam dara <laughs> moom nee nañ day jàpp bal bi di daw kon kay xam nga ne mooy moom ay affaire handball lay def ak <laughs> ah Youssou Guèye moom itam ku leen laal ñu daan ku leen laal ñu daan Youssou Guèye moom itam ñëwoon na tamit fii hmm? mais non sérieusement mënoon nañoo bokk non si parce que aussi euh, man man sax dafa ma métti parce que doon laaj ani waa Africa 7 non dañ ko confié dañ ko confié woon suñu hmm? sportif maison yi nga gis ñoom vraiment euh, bon loolu tamit la yàlla dogal rek. dama toog rek benn conférence envoyé ma affiche bi mu ne ma waaye lu tax. gisuñu Africa 7 mu ne ma jaay yëpp. sàmm biyaay gi dem naa ba koy bëgg a woo ma ne ko man man damaa mais ah. pour ñu nga am na yoo xam ne daal en amoon nañ fa place ndax ñi ma hmm. gis ah. ñi ma gis ñan la ñoo ñoo fa gis. télé yeeg rajo yi ma gis yëpp jël na ñoo xam ne ñu liggéeyul fa di la jox émission yoo xam ne yow kenn xam ban émission la ñuy def. dañuy teg dil rek. non mais attends man des médias gis naa ñu présenté koo xam ne kii kii ma a ko kii. bokk fa waaye bokk lu mat 5 wala 7. Ah. bokkuñ fa i média lu mat set ñoo xam ni présenté na leen mënul lañu la wax gën émission te am na ñoo xam ne dañoo moom da ngay ñëw ñu naan la émission sàngam lay def. Mm-hmm. émission sàngam. Mm-hmm. bokkuñ fa. bokkuñ rek bu dee fraude rek médias yi ñoo mën a fraude gën ci kii bi ah jël ñoo xam ne bokkuñ fenn te man nag fii koo fi jël fii la bokk ñun de ñaar lañ jël ñaar ñu fi bokk ñaar lañ complété woon. ñaar ngeen complété. kese te dafa am ñoo xam ne ñëwul woon sax mais ñu ci de ñëpp dañu foroot leen neex la ñuy def. waaw ah, ah, man ngeen di jël coupe ba pare yaakaar da fekk jëloo leen coupe bi mhm. fekk ñu ngi lu mat set ñu ngeen jël yëpp après da ñoom duñ jaar sax média ba mm-hmm. waaw mais quand même euh, lu lu am solo la euh, ci xeetu tournoi yi ni mel ah, euh, gërëm si bu baax doyen Samb bi ak yi ndax mm-hmm. day gën a taxal li nga xam mooy diggante yi ñi ngi xamante mm-hmm. mën a demlante dikkalante loolu quand lu am solo la mais jigéen ñi tam ci lañ bokk de daal waaw ci ngeen bokkee yéen de xanaa mayam ndox ngeen ñëw mayam ndox te mayam ndox sax yéen mais ñun amuñu fa wàll sax mais quand même mën nañu boole waale jigéen match bi ñu mujj organisé fii kañu jigéenal toog mm. yàlla bu toon ak moom gan duñu am dañ naan na jigéen yi xanaa gan mooy Mariama Diaw Traoré mi moo ñëw de mm-hmm. tax ba match bi jeex mais comme ñun mënuñu ñoo boole ci ay match dañuy defal ay tànn biir ak yooyu lan ñun waaw ah, man affaire yi mu xaw ma ko Mariama jërëjëf ngay sant la gërëm bu baax amoon nañu bégte feggoot nag yow <laughs> Euh, nuyu ñi nga xam ne ñu ngi doon topp ñëpp. Mhm. ziar leen bu baax jéggalu leen également ci li nga xam ne lii euh, bu fekkee ne wax nañ wax joo xam ne ji waxuwul mhm. li ñu bëgg rek mooy euh, wax loo xam ne lii day indi jàmm ci réew mi. indi yokkute ci li nga xam ne moom mooy réew mi gërëm bu baax sunu PDG Aliou Ndiaye ak Serigne Saliou fay ak Jules Khariba mi nga xam ne moom lay feggoog file incha allah suba dina ñëw bu soob yàlla. Mhm. la ci nag mooy amoon nañu mbégte ci ci waxtaan bi. ñoo la gën a am mbégte Baye Dame borom euh, Jolof borom Mboy naan voilà mi ngi noonu waxtu bi daal di jot ngi ñu daal di tàggatoo di gërëm di sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon bàyyee xel boobu ba léegi. ci régie bi Babacar Niang moo fa nekkoon ak Mariama euh, Diaw Traoré ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. ëllëg incha allah ngeen amaat seen leen plateau studio ouvert Souleymane Ba dina fi dikkaat incha allahu rabi daal leen yeggee li nga xam ne moo jëm euh, ci actualité euh, réew mi moo xam euh, ci wàllum tolluwaay politique économique ba ci yeneen waaye itam li nga xam ne moo jëm seen revue de presse kon ñu koy daal di faram-fàccee ngeen a ci ànd ak Dame Ndiaye incha allah ba ëllëg ak jàmm ci beneen plateau di jaajëfal ñëpp mi ngoog kon ñu yendoog jàmm jërë ngeen jëf